baabu jumalin lii buntub ay mbooloo la minal faraidi ci ay farata wa sunani ak ay sunna alwaajibati baat bi day firi yadi aji war waaye dañoo jublu alwaajibati yadi ñu fedd li loolu mooy maanaam yi war raxaaidi ak xemanteef ya moom it da koo def rek raxaayit def ko mbooloo waaye nee nañ bu dee fiqu maalik moom benn raxiibat rek la am te mooy ñaari rakka yi fajar maanaam bunt bi da ci bëgg gàttal mboole mi nga weesu woon muy ay masala yu teqali ko ci xeeti àtte yi mu far mu bëgg la koo fàttali nag léegi baamu ko waxal la ko ngir mu sësaloo ci benn bunt loolu taarif ko daañu ko faral di def kon moo tax mu naa lii buntu ay mbooloo la ci xeeti farata yeeg sunna ñu fedd leeg rax yi batu taa bañ a wax kon raxaa yi kon naa tudd rek rax yi batu alal dara jàpp li salaati ñeel julli faril farata la nee na njàpp ak laab la goo xam ne mënta ñàkk bu waree ci yow faaw nga def ko soo ko sañ a bañ boo ko deful du baax waxuma moom mustaqun lu ñu xare la minal wadaati ci wadaati bi firib taar maanaam baatu alwadoo mi ngi bàyyikoo ci alwadaat bi nga xam ne ab taar lay firi xam nga njàpp day tax nga amee ak sot ci biir bitti amee taaru biir bitti ilal mag magata ndaw galaxndiku wal istimsaax ak saraxndiku wa masxal udanin ak masaañaar nopp mënu ci njàpp fa inna zalika naka loolee sunnatu sunna la maa lem ne woon alwudu njàpp li salaati ñëw julli faritin farata la daa mel ne ko bëgg wax ne njàpp léppam farata la ba noppi nag génn ci ne ah galaxndiku kat ak saraxndiku ak masaa nopp yi moom du farata moom sunna la waaye la waxal nga dee doolam lent rek ndax sunna yi des na te gannaaw boo weesoo farata it xam nga am na ngëneel njëkk naa def lu mel noonu tam ca dañu wax njàpp njëlbéenu téere bi waaye loolu lépp rek nagum jàng nga ko feneen ak feneen rek nga dooloo googu leeral njàpp am nay farata am nay sunna am nay ngëneel am nay misib wasiwaaku soccu mustaxab la ñu sopp la mu raxa bunte la ñu xamee loolu fii ci moom soccu wax nañu ci gën mooy bala ngaa njàpp ngay jël bant soccu kalax ni ko tuur doo tàmbalee njàpp mbaa leen lu ñagas ni ki borosu rek nga boros kalax ni ko door a njàpp loolu moo gën teew na boo bàyyee bay jàpp nga jël sa baaraam fomp ko bañ ñi ba tey baax na wal mas fa masa xalal xuf fay ni ñaari sang boo xay bot mu rafet ak yola man la koo tax fii fan teeg woyofal la leesoo nañ buntu ci gannaaw boo solee ay bot am sañ-sañu braay ci kaw rek te bañ raxas tànk yi loolu ak jàppandal la woyofal la boo kos lu cangaay xalal janaabati ci janaaba waa daanal xay bi ak dawati mbarab waa nifaas ak dawati wasin farilatin farata la xanaa ko amee janaaba mbaa muy jigéen ji amee woon li ñu wax mbarab muy reegal ba mu jeex wala mu amee wasin dawati wasin maanaam day doo xam juróom waral ba mu jeex kooku war naa sangu farata boo kos lu jumaati cangaayul ajuma sunnatu sunna la cangaayul ajuma sunna la boo xos luñ xiir yi ni cangaayul yaari xiir yi mustaxab lu ñu sopp la muy tàngaayu koor fi tabaski li ñu sangoo janaaba lay mel waaye dañ koo sopp rek amul ci sunna wala xos lu cangaay xalaaloon war ka nga xam ne aslama tuub na faridatun farata la li ànd foo ngir naka moom junubun aji ami janaaba la ci kaw li ci ëpp rek dina koo xam ne ngaa dugg ci lislaam te fàttaliku ne ba nga nekkee ci kéefër ga mosul nga ami janaaba kon dana war ci yow nga sangu farata waaye bu ko ni ci kéefër ga mosu ci ami janaaba bu aajowoo muy sangu boo xos li mayiti ca ngaayal ab néew sunnatu sunna la dafa wax sunna la waaye wax ji gën a wër mooy sang ab néew fardu kifaay la wasala wasalawaatu julli alxames ya di juróom faridatin farata lañu maanaam julli juróom kenn ku ci nekk farata nga mooy kenn ku ci nekk ponk ba ci lislaam waa takk bi ak ihraami kàbbaru xarmal faridatin farata la moo baax it takk bi di aju des ci kàbbar sunnatu sunna la allah akbar yi nga wax julli gi nee na bu njëkk bi mooy farata yooyu ni ngay waxaat ci biir julli gi nag sunna la wa doxoolu dugg fi salaati ci julli ga bi ñu yetul faro bi ànd ak yéene farata ja faridatin farata la maanaam bokk nañ farata yi julli yéene ji yéene yi ngay yéene te ràññeel yéene ja waxam nañ ne kañ koy defee loolu farata la wa rafal yoo doon yëkkati yaari loxo yi sunnatu sunna la maanaam yëkkati loxo yi boo wax allah akbar ji nga wax sunna waaye wax ji gën a wóor mooy ngëneel la amul ci sunna wal qiraatu jàng bi moom alquran yi ci fatiha fi salaati ci julli faridatun farata la maanaam jàng fatiha moom farata la wama loo xam ne saara dolliku na xaleha ci fatiha ji sunnat la sunna la waajibat suñ suñ fàddali gannaaw boo weesoo faatiha yi da nga cee teg mu mat aw saar mbaa mu ñàkk koo mat ci kaw na muy julli farata yi loola sunna la wal xiyaamu taxawaay ba waru ko ak rukkoo war sujjóot ak sujjóot farilatu farata la maanaam taxawaayu armal ak taxawaayu jàng faatiha lu ci nekk taxawaay boobu farata la rukkoo ak sujjóot ba tey rukkoo ak sujjóot ba tey ak sax si gi rek ñoom ñaar lu ci nekk farata la wal jël fatu jataay ba al ula bu jëkk sunnatul sunna la wal taaniyatu bopp ñaareel bi farilatu farata la jataay bu jëkk bi dafay jublu jataayu taaya jataayu ñaar yi mu jublu ci digg bi ngay waxe asalaamaaleykum bu dee loolu nag kon noonu mu ko waxe noonu la bu dee julli ko am ñaari taaya nag kon ngay wàññi taaya bu ci nekk akub jataayam muy sunna ni nga ko waxe woon ni nga ko waxe woon ci téere yi nga weesu wasalaamu salmal ba faridatun farata la waxte yaa mooy ndaw jooru bi ak moom xalilan tuuti sunnatun sunna la wax gi asalaamaaleykum farata la lu wax nag ne nga xaw a ndaw jooroog moom xaw a du mooy ni ma ko xewoon ci gannaaw daa wax ne sunna la waaye déedéet kooku ngëneel la wax ji gën a wóor mooy ndey joor gi moom ngëneel la xaw du mooy seet ndey joor waxtal ko kalaam yi bàyyi wax fi salaati ci julli gi faridatun farata la maanaam bàyyi wax julli dafa wañ ci farata yi def na ko ñu waaye fart itam nga xam nga boo jullee waxte tey ko te lu defar julli ga taxit kon julli ga day yàqu kon nag bàyyi wax ak lépp lu dàqonte julli ba kere ngay sëlmal ab sart la jiiru julli gi boo ko defee la julli gi yàqu waxtu si xudaan yaari taaye yi sunnatum sunna la mu ngi noonu julli ga am ñaari taaye taaye bi ci nekk sunna nga sa jotaay itam sunna la wala xunootu xunoot fi subhi ci suba xasan aji rafet la wala sa bi sunnatin waaye du sunna aji rafet ji amoo luy sopp rek xanoot dañ koo sopp te ci suba rek lañ ko soppee te it rakkam ñaareel ba te it gannaaw bu njàng ma àggee bala ngaaru ko te it nga yelu ko boole ci yëpp ay sopp la yu tase wastiq daal dafa tudde farata waaye ab sart la ci waru julli gi mooy doo julli jublu xibla xibla mooy fekkee da ngaa nekk màgg mbaa la ko wër jënd kaaba ngay jublu fekkee da nga koo sori nag wet nga kaaba gi féete boo fa jubee rek boo fa jubloo rek bu baax loolu mooy xibla wa salaatul jumuati julli jumaa war sax yi ak dox ga ilayha jëm ci jumaa ja faridatun farata la julli jumaa farata la dem nga it farata la ndax mënu su ko tolloole moom faaw nga dem ci jumaa ja wétu ga wetar sunnatun sunna la waajibatun suñ suñ feddali wetar moom sunna su dëgër la soo xam ne mboolem julli sunna yi moo ci gën a màgg ñu wetar moom le wa kadalika naka noonu salaatu la day ni julli jaari xiir yi wal kusuuf ak julli muur wal istisa ak julli mbaaw julli sunna yi sax ñu ngi noonu maanaam wetar ak julli mooru jant moom maasi nañ ci julli mooru weer des na ko limaale ci waxi ñenn ñi am ñoo koy tudde itam lu ñu sopp waaye julli korti ko bés gi ak julli mbaaw yëpp moom julli sunna lañu nga xam ne bu farata yi jàllee ñoo ci topp wasalaatul xaw fi julli ragal waajibat aji war la amara digle na allahu yàlla subhanahu solel naa ko lépp loolu ci moom bi xaa ci moom julli ragal googule waxoo moom fi àllum jëf la yestadrikoona dëj danañu dawaatale maanaam daal danañu amee bii ci moom fadlu jamaati nga nel mbooloo nee na julli ragal dañu ko digal muy sunna jàngun nga ci gannaaw nañ koy defee moom nag nee na danañ ci amee ngëneelu mbooloo danañ ci amee ngëneelu topp ndigal ndax xam nga fekkoon ne julli jotoon na ñu fexe ba kenn ku nekk julli bañ a def noonu xaaj mbooloo ma nañ ko waxoon ci gannaaw du tee mu baax buñ defoon rek tam ilimaan taxaw jiite meen mbooloo ñooñu dem xeexi keneen dikkaat jiite meen mbooloo mu des mu daal jeex ba tey loolu it bu dëgg bu ko teexoon a baax waaye ñu defee ko ne ni ko waxoon ci gannaaw rek ndigal la loo xam ne sunna la te mat naa fonk wala xoslu sangaay li defoo li màkk te ngir dugg màkk mustahab la ñu sopp la sangaay li mooy sang bu dee bëgg a dugg màkk weesoo nañ ko ci gannaaw dañ koo sopp wal jam xu boole laylatul matar ci guddik taw taxfiifun ak woyofal la waxad fa àlaxoo defoon na ko alxulafa way wóot yi arrachidoon ñu doy jub maanaam guddi gi bu dee taw mbaa ni asamaan si mel bu ko mësaa mel daana taw ñu boole timis ak géey jullee ndoo leen te bañ a dem di ci waat ci géey gi loolu weesoo nañ ko ci gannaaw naka lañ koy defee moom itam ak bàpp ndal la ak woyofal la sunna la ndax yonente bi defan na ko ba ci xulafa yi nga xam ne ñoo topp ci gannaaw itam dala ca abou bakar jàpp omar usman ali radiallahu anhu ñoo itam defoon nañ ko wal jamhu boole bi xarafata ci xarafa wal mustalifati ak mustalifa sunnatun sunna la waajibatun suñu suñ feddali nee boole gi ñu boole ci arafa tisbaar takkusaan benn yoon ak boole ga ñuy boole timis ak gee ca musdalifa yépp sunna yu dëgër la yoo xam ne weesoo nañ ko ca bañ tolloo fañ ko war a waxee xanal na ko sax wa jamhul musaafir yi boole ak aji tukki fii jiddi sawri ci faru dox ba ruxsat na ak yolamal la maanaam ki nga xam ne day tukki ñu may ko mu boole yaari julli julleen dooleem weesoo nañ koy defeek la koy sawal yépp neen yépp ak jàppandal la wa jamhul marid yi boole ak aji tawat ja yaxaafu buroon dina ragal ay wax la ba bu definat ko xalaa xaqam fii ci xelam tax fii sun ak woyofal la wees woon nañ ne bu fekkee dafa tawat tawat joo xam ne bu gis baa jotee daal daa yaakaar ne bu takkusaan jotee day fekk muy xam tàggul sawoom waxane ne ko mën naa boole ci baa takkusaan waaye jot leeral nañ ne ba àggee takkusaan te loolee mu agaloon dalu ko xam nga dalu ko dana war a baamu takkusaan mooy tigi sa jeeyit noonu wa kazalika taka noonu jamhu ak boolem li li ay lëtt ngir jàngoro bi ci nekk ci moom fa yakkoon tey nekk zalika loole arfaqa di gën a ñëwante bi ci moom waxaane ne ko wéradi koo xam ne julli bu ne mu jóg baajal ko julli ko da koo tiis am na jàpp na luñ ko defaloon mooy bu julli bi jotee mu bañ julli fa saasa xaar ba nga xam ne muxtaar maa ngi bëgg a jeex mu waaj daal di julli bu noppee julli ko ci sës daal di jot ñu faa ko ci sësale ni ci mel ni jàpp ci genn jëw rek mel ne boole tamit boole loolu waxoon nañ ne ak jàpp ndal la te te du teel ñu digal ko tuyaaba yi ku teel leen julli julli bu njëkk ji ci waxtoom ndax li ngànt tax mu def ko wal fitru dog muy ñàkk woor fi safari ci tukki ruxsat ak wala mal la wal iqsaaru wàññi julli fii ci tukki waajibut aji war la warug sunna nee na bu fekkee da ngay tukki ci sart yi dajee daañu la may nga bañ a woor waxoon nañ ne sart yooyu ca nga tolloo ci buntu koor ba tey boo dee tukki nga wàññi julli yi julli yi matoon ñeent nga def ko ñaar loolu sunna su dëgër la waxam nañ def bi moo doon bañ gaa def waxam ne mooy sart yi ak yépp war ak xataal fajiri ñaar raakay fajar mën a rawaay yi bokk na ci xeminteef yi dafa wañu waale ñaar ñaar raakay fajar ci raxaay bi waaye mën nañ ne ci fiq maalik moom moom rek mooy raxibatu boo xam ne am nañ ko raxibatu nag mooy loo xam ne ki doon tëral yoon wi da ko xemin loo xeer wi xam ne boo ko seetloo bi julli farata yi jàllee julli suma yi jàll moom rax yibatu ñaar raakay fajar mooy gën a màgg naafilay kese yi mooy gën a màgg naafilay kese yi moom moo leen féete kaw wax yi da waxees na ni sax mën a suna ni bokk na ci suna yi waaye jàppal wax ji nga jëkkal wax agul ci sunna rax yibatu la wa salaatu duha julli yoor yoor naafilatu ak naafila la maanaam julli yoor yoor ak naafila la sopp nañ ko waaye agul ci sunna agul tam ci rax yibatu naafila rek la wakazalika naka noonu xiyaamu ramadaan taxaw ramadaan naafilatu naafila la maanaam julli julli ci weeru koor a naafila weeru koor yi moom it ak naafila nii waaye abul ci tax yëbatu abul ci suna wa fii nekk na ci ñoom fadlu ngëneel kabiru li aj rëy naafila weeru koor nag am na tuyaaba lool wa man xaamaxoo ko taxaw imaan ngir gëm waxti saaban ak ngir sàkku tuyaaba waxu fi la kon jégaleef loxo ñeel ko maa taqaddama la jiitu min fam bixi ci bakkaaram mais koo xam ne def nga naafile koor yooyu def ko ngir gëm yàlla ak sàkku tiyaaba yàlla baal la da nga wasoon ci bakkaar war xiyaamu taxaw mu ne léegi ci guddi fii ramadaan ci ramadaan waxee li ëllëg yi moom mu ne nawaafili bokk na ci naafile yi almuraxab ya di xemeewul fiihaa ci ñoom nee na julli guddi nag moom moo xam ci weeru koor la moo xam ci weneen weer la moom dañ koo taamu lool rek ñun daal bëgg nañu nit ñi nelaw yow nga yeewu di julli lool dafa joxe waaye moom ci ëpp tiyaaba te ñu taamu ko lool ci la bokk wa salaatu jullee ala mawtal muslimina ci way dee jullit ñi faridatun farata la joo xam ne yaxnalu xaada na ko yenn man xaama ko taxaw bi xaa ca moom maanaam ab jullit bu génn àdduna ñu jullee ko jullee dañ ko jullee fardu kifaaya la ne fardu kifaaya la mooy bu ko ñenn taxawee def ko rek doy na waaye bu ko ñëpp seetaanee kenn bañ koo def ñëpp bokk am bakkaar fi waxe fardu kifaaya mooy lu mel noonu wa kasaalika naka noonu moo waaraatuhum seenug suturaal bi def ni ca sol ga maanaam julli dafa at daal mën nga ne sang ga ak sang ga ak julli ga ak jëbe ga boromam yépp kenn la ci nekk fardu kifaay la woon gàtt ci wax ji gën a wér ci fiqhu malik waxus lihim seenu sang sunnatu sunna la waajibat suñ suñ feddali wala ko wax rek waaye li may wax léegi moo gën a wóor mooy sang gi itam ci néew boobule di julit fardu kifaaya la wa kazaalika naka noonu talabul ilmi sàkku xam-xam faridatun farata la xaamatun suy aji matale yaxmiluhaa sas dana ko yenn man xaama ko taxaw bi haa ci moom illaa maa ndaw la nga xam ne yàlla sama dana war arrajula waaja fi xaasat nafsi yi jagleeg boppam maanaam sàkku xam-xam dañ koy def ñaari xaaj xam-xam bi nga xam ne sa wàllu bopp la mooy la nga aajoo ci sa dund loolu moom faaw da nga ko war a xam fardu haynin la mooy sañu laa song muy nëmbër moo xam jaamu yàlla la moo xam jëflante ci kaw suuf la mbaa leneen te xamoo la ci islaam wax soo ko mënee xamal sa bopp ci téere yi da nga koy seeti soo ko mënul nga seet koo xam dooloo nga ko xam ne ko wér mu wax la ko waaye doo mën a jekki-jekki song mbir ci xamoo ko loolu araam na loolu nag xam loolu nag mooy farata la ko topp nag mooy topp téere yi di ko jàng shariha moom jéexe ci nga xam ne koy téewoo mën a ñëw ci yow nga labiré ko ci loolu moom bu ko ñenn defee rek daal nay baax loolu ko waaye na mënta ñàkk ab lim ko def fekkee ñëpp maasee sàggane ko rek ba nga xam ne comité yi daal foo dem rek ñëpp a bokk am bakkaar faa war naa am lim bu taxaw ci kooku wàll wa farid fi jihaadi faratay jihaad xaamat aji matale la yaxmiluhaa dana ko yenn mën xaama ko taxaw bi xaa ci moom illaa añ wax chaa ndare bu dafa dikkal alxaddu noonu ya wala xam nga ne illaa añ wax chaa ndare bu dafa bett alxaddu noonu ya maxal la taxaw ñun bérébu aw nit fay jëgu kon dana war faradal mbir mi farata xalihi ci ñoom xitaayu fu xeexante ñëw idaakaaloo dem nekk nañu nit lay xadadihim di ñaar bopp seenu lim maanaam jihaad dañ koy boole ci fardu kifaaye yi woy na yéefi dañoo jekk-jekk song dëkku jullit kooku ma waxoon ne ne bu fekkee dëkk boobu mën nañoo dëkku seen bopp kon léegi dëkku yéefe yi dala leen gannaaw fardu xëy nin la mooy nekkatul fardu kifaaye su fekkee mën nga ko ñu sis ñoom di jullit war leen taxaw ci kooku wàll su ko defee nag ndax jamono buñ toll ba tey loolu moo war a am wala déet loolu moom am na yeneen gëstu yeneen wax yuñ ci wax ndax li wax ñi mooy bu fekkee yëf yi soo mënoon def ñu dara rek du teyoon islam moom moo war a jógal boppam seet fu fee yëfar yi féete mu xeex fa ak ñoom ngir yaatal islam loolu bu ñeen ñi taxawee rek mu doy bu fekkee song daa am yëfar yi song yu jël ñun boobaa day soppi ci fal waxee ñun kenn ku nekk war a takku ba delloo yëfar yi gannaaw war ribaatu faandu fi tuxuuril muslimina ci bunti ragal jullit ñi sadduha ak seenug sakk ñoom bunti ragal yi waxiyaatatuha ak seenug peeg di wax peeg rek waaye mooy wattu ba tey waajibul aji war la yaxmilu xëy dana ko yenn man xaama ko taxaw bi ci moom li ñu wax faandu mooy itam fardu kifaaya la faandu mooy fi jullit ñi ragaleen bu ñu yëfri dee song fañ leen di songe am lu jullit ñi fa taxaw sàmm ko ba jullit ñi dara du jàll si lor leen loolu mooy faandu loolu fardu kifaaya la te bari na tuyaaba bu ñeen defee rek nag moom doy na ñu des ma mën nañoo dem ca seeni soxla wa sawmu shahri ramadaan woor woor ramadaan faridatun farata la na woor wooru koor moom farata la bokk na sax ci ponk lislaam yi wal ixtikaafu lixtikaaf naafilatun naafila la lixtikaaf weesu nañ ko ci buntam ak nañ koy defee yëpp itikaaf ak naafila la mën a ànd ci sunna wa tanafulu naafila bi sawmi ci koor muraqabun lu ñu xemeem loolu fii ci moom maanaam jekki-jekki di woor koor goo xam ne waru la ñu ko def rek ngir yàlla loolu tàmm nañ ko lool ba kasaalika naka noonu sawmu yawmi xaashura woor bu sub xaashura muy Shaabaan ak Shaabaan yawmi xarafata ak bisu xarafa wa tarwiyat ak bisu tarwiya mën na yoomu xaasura mooy bis bu xëccoo ci tam xarit bis boobu nag daa mu ne loolu ku ko woor ba tey woor rajab yëpp wala woor barax yëpp soo ko mënee bëgg nañ ko tegale ko ku woor leen soo ko mën tegale itam loo ci mën def nga di ko woor bisu arafa itam daa mu nañ ko lool mooy buñ ne subal tabaski waaw bis boobu tamit ñu taxaw arafa ca màkka boo nagoo seet bis boo màkka taxaw nga seete yow sa bisu juróom-ñeenteel rek ci woor tabaski ñu subal tabaski bis boobu mooy subitu arafa rek moom nga woor fa nga nekk yoomu tarwiya nag mooy bisu juróom-ñetteel bisu weeru bisu weeru ko bis ci teral bu dul see mooy yoomu tarwiya mooy tamit soppal ñu ko ko woor wa sawmu yawmi arafata woor bisu arafa li xayril xaaji ñeel ku dul aji aj afdalu moo gën mën ci moom li xaaji ñeel aji aj maanaam nag bu fekkee ne ajoo la ñu gën a tàmm ci yow nga woor bisu arafa ndax dañu bañ boo wooree rek ba noppi di aj boo tuur koor bi na la xaw a gàllankoor ba na nga war a def ci bis boobu du mën a mat bu baax a baax mën nga ni moo tax kon su fekkee daal nekkoo di aj la ñu gën a taamu ci nga woor bisu arafa boobu la wa zakatul xëy ni asakay kee wal xasi ak mbay wal maachit ak mbujur faridatin farata maanaam génne asaka ca wuru sa xaalis ba mbay ba jur fekkee war na ca génne ga asaka farata la bokk na sax ci ponk lislaam yi wa zakatul fitri muurum koor sunnatun sunna la faradaha sos dogal na ko rasulullah yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam muurum koor sunna la baa nga ni warugar la woo xam ne yonente bi ci boppam moo ko waral ci ñëpp bàyyiwul kenn gone yu mag góor yu jigéen ñëpp rek moom ci bopp nag moom moo ko dawal ci sunna daal la waree ci sunna daal la saxe waxa jul bayti aj néegu yàlla nekka aj néegu yàlla bi faridatun farata la wal humratu humra sunnatun sunna la waajibatun faratun fadli maanaam aji màkk boo amee sa dund farata la boo xasee boo farata ji boo ajoot rek mën naa fi la xumra nag moom sunna la mooy tam umra ba nga njëkk a defi mooy nekk sunna boo xasee umra benn yoon nag benn yoon boo defaati moom mu sotti waaye du àgg ci sunna lu lu sotti lay doon muy naafi la wa talbiyatu wax laa bayka sunnatul sunna la waajibatun faratun fadli wax laa bayka dañ ko tuddee sunna rek waaye warugar la bu fekkee ne armal yu yàgg te waxul laa bayka rek daal dem alamaan liggéey nag ñu koy tuddee sunna wan yettu yéene bil xaj ci aj faratun farata la yéene aj mooy armal armal daañu ko wax daañu ko wax yéene lu ci mën doon moom farata la wa tawaafu wër ga lil ifaada ci ñeel ifaada faridatun farata la a tawaaful ifaada moom it bokk na ci farata aj wa saa yu dox bay na safa diggante safa wal marwati ak marwa faridatun farata la dox diggante safa ak marwa mi ñu ko war a doxee moom itam farata la wa tawaafu wër ga al mattasil bay aji jokk bi fii ci moom waajibun aji war la dafa am wër boo xam ne moom la ñu woye tawaaful qudum boo teelee ñëw màkka te sa digganteeg dem arafa xaw a yaatu day war nga wër kaaba gi li wax waru nuwo dañ koy woowee tawaaful kudóom war na koy sisale ci dox safa ak marwa bu sës ci wër boobu nag waru gar la moom saa yoo ko bàyyi rek am alamaan moo tax ma teg ci wat wa tawaaful ifaada fi tawaaful ifaada ak du moo gën a fedd liku mën fi ci moom tawaaful ifaada gën a fedd liku ndax muy farata dëgg dëgg la suñ ko bàyyee alamaan la ko mën doxal wa tawaafur lu wadaaxi ngir tàggu kaaba gi sunnatu sunna la tawaafu wadaa mooy boo àggalee ba waaj ba jekk nga xam ni bi rek moo ci des nga di wër kaaba gi wërub tàggoo ñoom daa wax ne wërub wërub tàggoo gi sunna la sunna la ko jàppee waaye dafa mel ne niñ gën a ànd mooy yow mi sopp la ngëneel la waaye àndoo ci sunna boo demee ci muxtafal xaleelu mel ne da ko boole ci yow mi sopp dane wal ma biitu fanaan bu menen ci menen lay la te yow mi xarafata ci guddi bëccëgub arafa sunnatu sunna la maanaam bu ñu nee suba la arafa bu duggoo nga fanaane ko minan ñoo waxoon sax ni la bu fekkee nañ ni te yi la yow mu tarwiya maanaam tey la juróom-ñetti fan ci weer tabaski da ngay bàyyi ko màkk nga nekkoon dem minan boo demee julee fa tisbaar takkusaan timis gee fanaan fa fanaan moom lay wax nag fanaan moom lay fanaan nga xam ne bu setee mooy doon sa arafa ci la toll ni loolu wax naa wala wala ma biitu bu minen lay la tuddoo mu arafata fanaan moom nga fanaan foofu la wax ne sunna la waaye nag jàppal wax bi gën a wër mooy lu lu mu soppal waaye aggul ci sunna moom daa wax ne nag sunnatun wal jamhu boole bi xarafata ci xarafa waajibun aji war la maanaam boole gi ñuy boole tisbaar ak takkusaan foofee ci arafa moom aji war la waaye warug sunna rek la da ko baam waaye wax na ko wal wuquufu taxaw bi xarafata ci xarafa faridatun farata la taxaw arafa mu farata la moom bokk na bokk na sax ci farata aji moo leen ñeenteel ñett ya nga weesu woon ba nga waxee yéene jëmuy armal ak tawaaful ifaada ak dox safa ak marwa léegi taxaw arafa moo leen ñeenteel wa ma biitul musdalifati fanaan musdalifa sunnatun sunna la waajibat faratun fadli fanaan musdalifa sunna su dëgër la wàcc ga ba say bagage wàcc nag moom warugar la fekkee ne defoo ko rek am alamaan wa wuquuful masharil xaraami taxaw ci al masharil xaraam maamoor nañu digle la bi ci moom waaw fekk fanaan nga musdalifa boo xëyee jaari ca masharil xaraam taxaw fa loolu lu ñu digle la lu ñu sopp la maanaam daal waramil jimaar yi sànni jamre yi sunnatun sunna la waajibat suñ suñ fadli dafa tuddee sànni jamre yi sunna waaye say boole ko ci warugar yi boo ko bàyyee rek am alamaan wa kasaalika naka noonu alxilaa xawatu ba tey watu du ko tuddee sunna waaye boo nee tudd ko sun waaye waru war la bu fekkee bàyyi watu bàyyi nga ko rek watu yoo jemp woo rek daal di war di falamaan bu dee jigéen moom day jemp waaye du watu wa taqdimu rukni foon ponk ba sunnatun sunna la waajibut suutun feddali ponk bi mooy alxajar al aswad maanaam foon boobu rek lay wax ne suuf dëgër la waaye kat ci wër bu njëkk bi wër bu njëkk bi rek nga foon boobu sunna nga wër bu def nga foon boobu lu mu sopp la xam nga wër kaa bi dana tuuru ñaari yoon moo tax wal kos lu cangaay la lil ihraam ngir armal sunnatun sunna la maanaam boo dee armal cangaay li ngay sangu moo newee sangoo janaa bu ñoo bokk waaye armal jee ko waral moom sunna la moom war a koo julli indal ihraam yi fa armal ga sunnatu sunna la ba tey bu maanaam bokk na ci sunna yi julli ñaari waxtu bala ngaa armal fekk waxtu woo awoon ci ku ca naafila wax nañ ne sax ñaari waxtu yi dañoo sopp ko ci jàng gannaaw faatee rakka dikk kawal kaafara ne gannaaw faatee rakka ñaareel qul wallahu ahad loolu wax naa julli googu sunna la waxus lu xarafata ca ngaayul xarafa sunnatu sunna la cangaay yu saarafa da ko tudd sunna waaye dafa mel ni sopp gi moo gën a wóor boo kus lu sang lu joxoo lu màkka te lu dugg màkka mustahab lu ñu sopp la kooku baamu la waaye waxoon na ko wa salaatu julli fi jamaati ci mbooloo afdalu moo gën min salaatu fas ci julli kenn bi sat ci juróom ñaar wax yi siina ñaar fukk daraja tam ci daraja maanaam julli ci mbooloo gën na julli yow dong ñaar fukki degare juróom ñaar wa salaatu julli fil masjid al xaraami ci jàkka ji ci kaaba ba wa masjid rasul ak jàkka yonent bi ci madina sallallahu alayhi wa sallam fadlan mbir mu kenn rek afdalu moo gën mu ne salaatu ci julli fii saa'iril masaajid ci mboolem jàkka yi maanaam boo jógee woon ca kaaba yow dong dafa dafa mbooloo wala julli ci jàkka yonent yow dong dama doon doon yow dong moo gënoon di woon ànd ak mbooloo ci jeneen jàkka mbaa ci benn béréb ki di julli kenn ci ñaar jàkka yooyu moo ëpp tuyaaba lool julli mbooloo ci feneen waxtali fa wuuteef na fi miqdaari tadhifi ci kem ful bi di jaalika ci loole baynal masjidil xaraam diggante al masjidil xaraam wa masjidi rasuli ak jàkka yonante bi alayhi yàlla mbooloo nekk ci moom asalaat dolli teral wasalaam ak dolli woolu man dañoo woote nag ci maanaam nga jullee ci jàkka ji ca kaaba ga ak nga jullee ci jàkka ji ca madina bi jàkka yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo ci ëpp tuyaaba foofu daal na tuyaaba ji ëppante la ñu wutee wala mu waxtalaf wutee fut ni am na salaat yi ko julli fi masjidi rasuli ci jàkka yonante bi sallallahu alayhi wa sallam afdalu moo gën min alfi salaati ci junni julli فيما سواه في الإمام وسوى المسجد الحرام أو بدون المسجد الحرام من المساجد في جاكي نانا ما سنين كنا موم لجلو في جاكي ونمتوي موغن لجلو في نم جاكي جبوك تنموم جن يوم gannaaw boo tegee fee nag jàkka ji ci kaaba ga ndax jàkka ji ci kaaba ga moom ba tey wute yaa ngi fi waaye nag boo tegee fee jàkka ji ci kaaba ga moom jullee ci jàkka yonent bi moo gën jullee ci jeneen junni yoon wa ahlu madinati waa madina yaquluun dañu wax ne inna salaata yi ko julli fii ci jàkkay madina ji afdalu moo gën mën a salaati ci julli fii masjid xaraam ci jàkkay kaaba ga bi deux mille alfi ci lu wees junni waa madina dañu wax ne jullee ci jàkkay madina ji moo gën jullee ci jàkka ji kaaba ga waaye nag lu mu ko gën a mëtu junni lu mu ko gën a mëtu junni yoon wala waa madina wax waxeesaa lii kulluhu léppam fil faraa'idi nekk na ci farata yi ñoo leen gënal ñu wax yëpp nag jullee ci jàkka ja bu dee farata tax ñu wax waaye bu dee naafila moom defu ko ci fi nekk moo wan wa am nawaafilu daal naafila yi foofu lu bawut fi néeg ya afdalu la gëne naafila moom defu ko fi nekk moo wan wa tanafulu naafila bi rukkoo ci julli li ahli màkka te ñeel nañ màkka ahab moo gën a sopp ilinaa jëm ci man mën a tawaaf ci wër kaaba wa tawaaf wër bi it lu xuraba ay ñeel doxandee yi ahab moo gën a sopp ilinaa jëm ci man maalik mën a rukkoo ci julli fi xillati wujuudi saalika ngir néewum amul loolee laxum ñeen leen nee na koo xam ne yaa dëkk màkk nga xam ne yaa ngi dëkk kaaba bi saa yoo bëggee wër ñoo mën a wër kon yow say naafila mën naa appee ci ay ràkka ndax nga bañ a xatal ñi nga xam ne ñoo doxandéem yi ñëw di wër waaye koo xam doxandéem nga xam ne nga xam ne boo ko fi ñu doo amati kaaba boo wër kon yow say naafila ëppee ci wër kaaba bi moo gën bu ëppee ci julli rakka ndax yow boo ko sëñi bi doo amati kaaba goo wax wa min al faraid bokk na ci farata yi xabdul basari damm ab gis xamil maxaarimi wal fi araam yi mu ne bokk na ci farata yi nag cër yi la yàlla dénk nga sàmm leen ba bañ cee mooy yàlla bët nag moom da cee gën a sopp te jàdd yoon yomb ko moo tax mu tàmbalee ci bët kon ñuy téye fii bët bañ cee xool dara loo xam ne araam naa xool wala fa fi nadarati bët mu nekk ci xool ba al ula bu jëkk te xëy di taamadin ci lu dul tey xarajum bakkaar mais li nga xam ne say bët daa jekki-jekki dal ca mu aaya xool nga daal di bàyyi fa saasa doo ci am bakkaar waaye boo jàllee xool nag gannaaw ba nga xamee ne lii aay na nag waaw kay loolu lañ lay bindal bakkaar wala fi nazaru di caa jëm ci xool ilal mutajaalati jëm ci màggat mu jigéen ay jigéen boo xam ne màggat na ba góor ñi soxlaatuñ ko kooku moom xool ko du aay wala fi nazaru di caa jëm ci xool ilal shaabati jëm ci waxambaane yu jigéen li xuburin ngir ngànt min shahaadatin ci seere xale xaa ci moom wa sittin aw ndaw ak moom nee na itam bu fekkee kooku jigéen bu ndaw la waaye xool ba nga koy xool ngànt tax ni ki daa mbir moo koy seeree nga war koo xool ba xamee ko bu ëllëg nga xam ne kii laa seere woon muy jaayante mbaa muy jëndante mbaa muy ñu koy maye mbaa dara yooyu yëpp dana ajoo xamee gi bu fekkee nga bu docteur bi faj itam noonu kon taxee na doo mën a ñàkk a xool boo ko dee faj yëpp moom ayut waxat urxisa wala ma lees na fi jaalika ci loolee lil xaatu yi ñel aji labat nee na ki nga xam ne moom daa bëgg a takk jigéen ji def ko soxna waaw daañu ko may ba tey mu xool kanamam ak ay téngam waaw mu xool kanamam ak ay téngam ndax am na ci bëgg wala déet am na ci lu muy sikk wala déet yow moom sax ci dagan waaye sopp nañ ko boole bi ndax moo doon jekki-jekki bëgg ci dee xamut ci dëgg-dëgg mais bu gisam bi ci kanam gi mbaa du ko bëgg kon nga xool kanam gi téng yi daal wa min alfaraaidi bokk na ci farata yi sawnul lisaani ñoŋal aw làmmiñ xanil ko bi wal seen làmmiñ daa bokk ci di war a sàmm bokk na ci yañ ci war a aay yañ ci yañ ci aaye te war ko moytu mooy wax lu amut loolu moom mooy fen mooy ziiri ak seere neen seere neen mooy seere lu mu xamut donte dëppoo naan la amit waaye ba nga koy seere lu xamutoon mu am loolu seere neen la wal fahishaay ak ñaawteef moom mooy wax ci jàmm làmmiñam dara lu ñaaw wax waxoon nañ nag saagaat wax buntu suuf ba buntu sawukaay jaaree ko ci digg ba te mën koo teggil nag yooyu yëpp wax bu ñaaw la. wal xiirati ak jëw jëw moom lu yomb la mooy wax ci nit koo xam ne nekk fi loo xam ne am na sax waaye bu ko déggoon du ko neex loolu nag mën naa doon ci dugub mën naa doon ci këram mën naa doon ci otoom mën naa doon ci soxnaam mën naa doon ci toolam. mën naa doon ci rajo moom daal loo wax ci moom baal laal ci moom loo xam ne su ko déggoon du ko neex te fekk mu am boole ci rek mooy doon jëw bu fekkee amul boole ci nag mu boole yaar nga koy duural ba noppi kon nga koy duural mooy daal di gën a doy waar da nga wax ay for forul am wan na mati ak rambaaj rambaaj mooy siiwal wax joo xam ne day indi yàq loolu moom bokk ñu ci yaram wal baatulu ak neen kullu kullu fi léppam lépp loo xam ne daganul la rek na ko moytu ci làmmiñam loolu mu wax neen mooy lépp loo xam ne daganul na ko moytu xaala wax na arrasul yonante bi alayhi yàlla boole nekk ci moom asalaat boole teel wa salaamu boole yoolu yonante bi nee na woon man kaana ku nekk yuminu di gëm billahi ci yàlla wal yoon albis bi al axir bi aji mujj fal yàqul nay wax xayran aw yu aw li yasmut wala mu nopp yonente bi nee na woon soo gëmee ne yàlla am na bis penc lu ñëw itam mu fay la sa jëf kon looy bëgg a wax na nga ko teylu bu fekkee luy indi tuyaaba la nga wax ko bu fekkee du indi tuyaaba nga noppi waxaala wax na ma yonente bi xaalis yàlla doole nekk ci moom asalaamu doole woowu ne min xusni islaamil mar i bokk na ci rafeti islaami can si can si mooy nit ki rek tar ko fa bàyyeem nga maa lépp loo xam ne laa ya am yi du ko jëriñ bokk na ci wax yonente bi mu ne bokk na lii tax sa lislaam rafet lépp lu amaloon njëriñ nga moytu koo wax moytu koo def looy def daal nga gis mu amal la njëriñ bu loo wax noonu waaye loo xam ne amal la njëriñ moytu ko ci wax moytu ko ci jëf wa xarama araamal na allahu yàlla subhanahu saral naa ko lépp lu yellu ci moom dima al muslimina dereti julit ñi wa amwaalahum ak seeni alal wa axraadahum ak seeni der illaa bi xaqiha dara ci seen àq nee na kenn ku nekk ne war naa moytu mbokkum julitam di ko tooñ ci genn wet di ko tooñ ci tuur deretam mbaa yàqu deram mbaa alalam yett yi nga xam ne kenn sañ koo laal ci yëfi sa mbokkum julit muy deretam muy alalam muy ab deram yépp dañ ko dafa war a ñoom lu may daa jàdd yoon bu jàdd yoon na yoon moo ko koy teg ولا يحل أبدا دم امرئ درتي أرسل مسلم في الجلد إلا أن يكفر درود هودي بعد إيمانه تجناو الجلد أو يسمي ولا من جعله بعد إحسانه تجناو السنجول أو يقتل ولا مري نفسا بكم بغير نفس جلد بكم أو فساد ولا يق في الأرض تشوف أو يمرق ولا يفل فالموجن من الدين كدينه وهو أحنا اللي تخ ab julit mu sama pour deretam te bu boobaa yoona ko santaani mooy mu murtat ab jul woon waaye léegi wax na lu ko génn ci lislaam mbaa def na ko ñu wax ko wax tuubal bu ñett fan ñu matee bu tuubi rek ñu rey ko wala mu njaaloo te fekk mu sañëw wax ne na lu sañëw soo ca njaaloo fekk na mu sañëw kon yoon da koy rey wax ne it naka lañ ko reyee wax nañ ko ci gannaaw ak bu reyee bakkam te tey ko bu reyee bakkam te tey ko ñu war a fay ci moom it te tey ñu fay ci moom rey ko ak bu fekkee day àddu kalfe yàq ci suuf muy yéene dogale mbedd yeeg yoon yi di tëru nit ñi bul xokk tala ko rey loolu it ku ko def ñu rey la xew bi la ci diine moom xaw naa dugg ca wàllu murtad ga ndax noonu la xawoon rool waaye boo dee xew saraatu nit day wax murtad gi def ko fas bu ko génn ci diine mu yooyu ji mel ne jël ab kaamil sànni ko ci sobe wala takk laxasaay bi nga xam ne moom la ñuy xàmmee ku mel ne patali yi wala man ko oblas ba nga xam ne mooy seen jaamukaay wala waxe man la misaal marka dëgg dëgg leen wax ne aw yam roqa wala mu xel mëna diine ci diine xeetu marka la waaye naan da koo teqalee ci kaw ba attiqaa dina waa kas sura def maanaam waa ji fas loo xam ne من فحم جابك ويوفر باعتقاد أن الله جسم أو أنه لا يعلم الأشياء مفصلة أو لا يعلمها إلا بعد وجودها كما تعتقده القدرية الأولى أنا من جابني يالا جنب من المنزل ما جابني يالا كت مري خمك من سبب ولا خمك تتقل ولا جابني يالا بلا قدري دا أمنا توعيب أنا جبك خمك نيو القدرية يكني من جابني wal ta kufa nga fal yada ka salahu xamma wal fi nekk loo xam ne laa yaxee lu du dagan naka ñeel la mun naa ci alal aw jëfet wala yaram aw damin wala deret mene lépp loo xam ne néew la rek sori ko bu dee alali jaambur bu dee yaramu jaambur bu dee dereti jaambur yaramu jaambur mooy lu ne laalanteeg jigéen joo xam ne jaambur la ci yow maanaam mel ne moo xam am na jëkkër moo xam na jëkkër waaye daal raam laa takk wala mooy jaambur ci yow kooku nag sunu laa laa yaramam sunu laa joxanteeg moom sax loxo yi noonu ñu koy defee lu araam la dañ koo miin rek wala tubaay wala tafa bu dox bi xadamee ko ci siwaari ndëgg fii naa ci la nga xam ne laa yaxil lu dagan la ko ñeel la wala tubaa shir te bu jongonte di far bi ko ci sa pay ni pay mooy sa sawukaay aw bi seen wala ci dara mun jëfe bi ko ci sa yaram maa loo xam ne laa yaxil lu dagan la ko ñeel la mu dafa nekk daa war a sàmm boppam ay tànkam na fexe bañ cee dox lu aay ak sawukaayam na ci moytoo def lu aay na ci dugal ko fu mu ko war di dugal mbaa def dara lu aay wala war koo sàmm ci sàmm war koo sàng maanaam ci sàng ko ba tey lépp loo xam ne ñu ngi bokk ci sa yaram bi la yàlla dénk rek loo ci war def bul ko ci def xaala wax na allahu yàlla naka bu dee sa loxo sax dañ koy téye bu dee ci bind loo ca war ko bind lu wéy rek qaala wax ne allahu yàlla subhaanahu solal naa ko lépp loolu ci moom ne wallazina ña nga xam ne hum ñoom xaafizoona way wattu lañu li farojihim ñeel seeni pëy muy seeni sawukaay ilaa xawul bi ba ci waxam ji mu ne fa ulaayika ñooñee hum ñoom alxaadoona ñoo dee jéggi la dagan jëm ci lu araam te neexee ne alxaadoona ñoo dee tooñ seen bopp ay gan la su borom dañuy tagg ñu gëm te rafetu gëm boole nag ñi nga xam dañuy sàmm seeni sawukaay bañ koo dugal fu warta dugg bane illaa ala azwaajihim aw ma malakat aymaanihim la nga ci seen soxna wala seen jaam yu jigéen ci jamonoy jaam amee dafa teg ne fam fa mu nit taxa wara ab daalika fa ulaayika humul aadoon ku weesul la dagante moom nag donte lu aram nag kooka moo toon boppam wa xarama araamal na allahu yàlla subhanahu soral naa ko lépp léerul ci moom alfawaxisha ñaawteef ya maa baxara la feeñ min xaa ci ñoom wa maag la nga xam ne battana biri na su borom daal lépp loo xam ne dafa ñaaw muy ci wax muy ci jëf rek muy lu fës muy lu làqu rek xamal ne lu araam la doon sax lu mu dana ci xolal la te fekk muy lu bonit loolu lu araam la wa an yuqraba ak bu dee fi jege an nisaaw jigéen ña fii dami xayadihinna ci deret seen deret aw nisaasihinna wala seen dereteesin bokk na suñu borom aaye bu jigéen tolloo ci gis deret ci deret seen deret mbaa dereteesin kan ko seqal adduna ni góor dafa war a ormaal nga tàmbali ci ndoxo bi ci bëti woom ja ba deret di jeex ba mu sangu waaye suñ te joteeg moom te fekk mu amee deret seen deret mbaa dereteesin mbaa sangoogut lépp weesoo nañ ko ci gannaaw وحرم أرام من النساء جيجين من على نخم يتقدم الجيت وأن ذكر الناس نطب إياهما يعني جيجين من خم من أرام تيجا تقلين بتاي وحن من كل تجناو مي يار برون يار نلر لانكو نجا دل ساتكو وأمر تمدين بأكل الطيب تلك متاي يعني سبرام يهدي لك مدغن وطعمه هو متاي الحلال ما أجي دغن fala yaxilu dagan laka ñeel la an taakula nga lekk illaa tayiban dara aji tey wala talbasati doo sol illaa tayiban dara aji tey wala tarkabati doo war illaa tayiban dara aji tey wala taskunate doo dëkkee illaa tayiban dara aji tey wa tastaamalu da nga jëfandikoo saa ira maam mboolem la nga xam ne tam tafiyan da nga jariñoo bi ci moom tayiban mbir muy aji tey dafa daal moom lépp luy jëfandikoo daa waral lew ci moom bu dee lu muy lekk bu dee lu muy sol bu dee lu muy war bu dee lu muy dëkkee lépp lu mu jariñoo rek ya fekk mu wër ko ne moom lew na ko doom wamun wara i zalika nekk ni ci gannaaw loolee mushtabihaatun way lënt man tarakaha ku leen bàyyi salima mu mucc waman axadaha ku leen jàpp kaana mu nekk karraatihi ni ki aji for wala aji sàmm aji sàmm mooy aji fortal ak juróom xawlal xinaa ci lu wër kaaraangel buur yéesiku dana xaw rek mooy dana jege ay yaqaxa ñu dugg fii ci kaaraange loolu yonent bi daa waxam ne am na yoo xam ne lew na te yomb xàmmee ne lew na am na yoo xam ne araam na te yomb xàmmee ne araam na am na yoo xam ne moom daa xawalantu ba ñëpp daa waxam ak araamam ndax xëy na moom mandargay dagan am mandargay araam yooyu nag moom nee na sori ko rek ca baax ndax yonent yi boo ko dee jege ngay mel ne ku dem fekk foo xam ne bur la koo aar mu fii di kenn jege fi kenn sàmm nga dem sàmm ci gësu bur ba loolu lu jekk-jekk rek bugg ci boobu yëpp kon nag boo dee dem ci lënt itam boo wutul loolu jàll ci lu araam ci loo xam ne boo ko yëg wa xarama araamal na allahu yàlla subhanahu soral naa ko lépp loolu ci moom ak lal maali lekk alal bil baatili ci neen te kat wa mu moom nal baatili bokk na ci neen alxasu bu daan jël wa taxat bi akum jàggati nee na su borom araamal na lekk alal jàmbur ci caaxaan moo ci anam gu dëgg te bokk na ci caaxaan muy bokk na ci lekk ak jaamur di dëgg nag ëpp ko doole mu ngi yëfam ëpp ko doole mu ngi yëfam moom ku ne xam ne ram na bokk na ca jalgati mooy soppandiku ci loo xam ne yëfi jaamur la ci kaw sa doole rek bu ñëw ko foqal ci ca moom moom ko sax nekkee jàggat ni xas bu defoon xas bu jee nga wees waaye da nga caa soppandiku loo xam ne su dool dong nga ko defee loolu xam nga ne ram na bokk na ci sax loo xam ne am na ci ndigal mu yëfi jaamur lam la ci mën a ndigal nga woosu ko def ci lu ko ëpp loolu sax jalgati la wal xiyaanatu ak war bokk na ci araam war ni ki ñu dénk la nga bañ a sàmm dénkaan laa yu demee noonu yëpp war na war riba ay riba riba moom mooy gépp jëflante boo xam ne yoon aaye na ko rek bari na ci njaay nag na ko moytu war suxuti ak jar ger mooy joxeb neexal joxeb neexal ci loo xam ne du ci ay joxeb neexal mel na ci àtte yi deme noonu dañ wërtu laajum neexal rek neexal bañ ci joxe lu araam la wa tamaaru ak carte lépp loo xam ne ku nekk day tegu teg ku dàq jël ko rek loolu carte la ak ci lañ ko mën defee wal xararu ak lépp luy xarar lu xarar mooy lu wéra di mel ne di jaay xët yi nga xam ne naaw nañ xamuñu daal ñu gisaatam déet mbaa di jaay lu ñu sàcc xam ne xamuñu nañ ko dajum déet mbaa lu réer yi dama ne yëpp rek ñu xaral la wal xisu ak jaxase lu baax ak lu ban xasat yi ci gën a ay la bokk maanaam di jaay dara jaxase ca leneen lu ci bokkut maanaam di jaay soow wala meew rax ca ndox moom dana bari ndax rek bëgg mu bari yépp lu araam la wal xabihatu ak war ci aw jëf wal xilaabatu ak war ci wax war ci jëf moom ñu koy misaale di wàqanteeg kiy jënd wàqante wu neex ba jox ko fu mu toog ba xar gura jox ko ba jox ko ndox mu sedd ndax rek li nga bëgg am ci moom ndax man rek boo bu xasee waxaaj ñoo ñoo lu sa weesu jënd ci keneen ba loo ko wax rek dafa yu demee noonu kooku it war ci war ci jëf la war ci wax nag moom mooy lu mel ni nga ne ko lii day moom maa ngi ko jëndee junni kon nag ba ma ci tegalee ñaar téeméer ma jaay la ko xam ne wax ko dama jàpp ne kon ndegam loolu yaa ngi ko jënd indi sonn ci teg ko fii di ko jaay ñoos ndegam ci jënd ko jëndee moo ci tegalee ñaar téeméer mu jaay mu jaadu loolu nag bu yàlla dogalee fekk nga jënd ko ñeent téeméer dong nga di ko wax junni nga di ko wax junni loolu xam nga ne war ci wax loolu la xam nga defe rek loolu war naa jaaru tijj ci ñëw te jaamu bokk na itam publicité maanaam publicité ci njaay yi wax ci lu amut ba tax ñu jënd ko loolu itam bokk na ci araam ndax da nga leen nax rek bañ jënd ko wa xarama araamal na allahu yàlla subhanahu fale naa ko lépp loolu ci moom ak lal maytu ci lekk medd medd araam na lekk ko wax nañ la medd mi araam nag wax nañ la it medd mi nga xam ne moom dagan na mel ne jën jën medd la waaye wax nañ la la moom ayut muy meddum géej xana fi moom rek moo moo aay waddaanu ak deret deretam bokk na ci araam jëpp deret joo xam ne mu jamee rek mu sotti ko mooy deret ju ñu fis jooju sobe la te araam na lekk ko araam na it mu taq la nga julliwaale ko mbaa dara deret bi nga xam ne kenn fiisu ko nag mooy bi nga xam ne boo xottee yàpp yi mu nàcc jooju moom deret bi rafet lay doon jooju moom du sobe waaye judi jooju rek xam ne boo jamee rek mbaa nga ron mu tàmbalee sotti ko jooju sobe la wala xamal xinziir ak yàpp mbaam xuux mbaam xuux moom daraam daganut yàpp waa nee nga ci yem lépp lu bokk ci mbaam xuux rek dañ ko yaaye wamaag la nga xam ne uxil la yëkkateef mu kàddu li xëyrillaahi ñëlu lu yàlla defe ci moom lépp loo xam ne dañ koy ren dañ caa tudd lu bokk ci turu yàlla mbaa ñu ren ko leneen lu bokk ci yàlla nit ñu ren ko aw xiram mbaa bu fekkee jabar yi ni ñu def di ren di rab yi rab yi te yëpp day araam ab yu lekk ko wama ak la nga xam ne aana dimbalee na xalaa mawti yi ci deyam nga taraddun ak barkandiku min jabalin tukkee ci doj aw waq jotin wala ak fàdd bi xasan ci yet aw xëy bi saa wala waxul aw yet wala mën xaw ne fati ak aji xarandikoo bi xaslin ci boom aw xëy bi saa wala muy boom illaa an yubu farra dara bu def ko lorloo illaa daalika jëm ci loolee lii lépp waxam ne la bunt bi dañuy fàttalewaat rek waaye lépp waxam nañ ko maanaam bu fekkee loola daa barastiku daanu mbaa ñu fàdd ko mbaa mu xerandi ko yu demee noonu bu fekkee ne léegi fàdd ya dem na dañoo waxoon ne ren bi ci am njëriñ loolu wax nañ ko ci gannaaw palmetu ci niki medd medd yi bokk na ci li nga xam ne araam na ci ab jiwit mu di ko jëfandikoo lu may rek daa loru bu fekkee da caa loru moom mooy medd rek la gis te àgg na ci bu lekku dee kon dana sañu lekk medd wa dalika loolee ida saarat ngeen mujj nañu bi dalika ci loolee ilaa xaalin jëm ci ambir moo xam ne la xayaata dootul dund wax dafoo ci gannaawam kon fala zakaata dootul ren di am njëriñ fiihaa muy nekk ci ñoom fiihaa ci ñoom rek dafa wax ne yi mu la wax nii muy la bar pàdd yi demul nag mënees na koo rendi bu ñu ko rendee mu daal di baax waxane ne leneen loo xam demeewul ne yii dafa tawat rek donte xam ne sax tawat ji àgg na ci moom ku rendiwut mu dee du tee bu ñu ko rendee te deret ji ne paf mbaa mu yëngatu bu baax rek mën nañ koo lekk wala ba asa ayut lil mudutar ñel aji loru ay yàkkula mu lekk almaytatu medd waaye subaate muy regg waaye te sow wala te mu ci yóbbu loolu tam baamu la ndax dañuy gàtt dañuy fàttalee la ñu war esoon ci gannaaw mooy boo loroo ba nga xam ne xiif yi jàpp na la booba lekkut faatu te gisoo lu muy medd medd araamoon na waaye léegi dagan na ci yow lépp lu la aay woon dagan na ci yow ba mu des yaar muy sàngara doo ko mën a naan yàpp doomi aadama itam doo ko sañ a lekk du sax lekk ga yàppoo daa aay ci yow waaye maanaam dañu bañ nga xotti sutura si jàmbur mel ne bu seen doomi aadama bu faatu du tax xiif moom xiif noonu tax mu dag ay ay yàppam di ko lekk ndax daa war a sàmm ormay kooko xiifu wërta tax mu dugg a jagal boppam ba tax dagg yàpp kooko fa indi soxnaa dem doylu na xan xaa wala si mbedd moomu toroxaxaa mu wàcc ko nee na nag mbedd mi loolu rek moo ko waral boo fekkee nag wax na ne mbedd yi mën na cee lekk wut ci yóbbaale sax boole ji su ko yoree ba yàgg muus leneen lu mën a lekk nag na sànni mbedd mi te xam ne lor jaa taxoon kat te lor ji jeex na wala bas ay bi intihaax ci jariñu bi jul dixaa ci dërëm dërëm medd isa bi dixa ndeem si bi jëf na ko wala yu salla waaye deful julli xale ci der boobu wala yu baax te defu ko jaay maanaam medd moo xam ne meddam sobe la ab dërëm tam sobe la waaye nag am nañ ci ak jàpp ndal ci boo ko dëndee ba mu set mooy boo ko boo ko defaree ba mu baax loolu mooy dënd ñu ko wax si bij daal la may nga jëfandikoo ci yaar mooy ndoxum ñuul ak lu wow loolu yaar nga ci sañu jëfandikoo waaye diisu ci julli diisu ko jaay wala ba sa ayit bi salaati ci julli xalaa juloo di sibaax yi ci dari ndeg ment yi ida zukkiyat ndeem ren def na leen wa bay ak seenu jaay nee na rab yi nga xam dañuy fàdd boo leen jàppee rendi leen kon xamal ne seen dër yooyu mënees na jaay julli mënees na koo jaay ndax yi yi fàdd moom dañ ko sib rek ci fiq maalik na ko leeral sax waaye àggul ci araam bu dee ci fiq maalik wayen tafamu def na jërëjë bi suufal maytati ci ngënalul medd wa shahriha ak kawaram wa maa lépp loo xam ne sama def na ko dindee min xaa ci moom pil xayaati ci waxtu dund ba te du metti wax nañ ko foofu muy dañ ne bu fekkee dara daa medd bu dee lu am kawaram leen mel ni xar wala mu am kawar ni mel ni gëléem mbaa bëy wala leneen mën ngaa xuuf kawar ga ba ñëpp dag dañ ko suqati xanaa xuuf ko ci kawar yi noonu loolu la mu medd medd bu soxlaa kawar ga mën nga koo xuuf jariñoo lépp loo xam ne mu dund mën nga koo dindi ci moom te du metti rek ba tey gannaaw bu meddee mën nga koo jël jariñoo te du aay boo ko see medd nag lépp loo xam ne boo ko dindee ba mu dund mu metti boo ko see medd te medd ma nekk sobe ba tey loolu sobe lay doon ni ki dongo yi sax ci yaram yaram nañ ko leeral léegi wa ahabbu lu gën a sopp ëllëg naa jëm ci Maalik ay yow sa la mooy bu def ko fóot mooy la nga jëlee ci medd ma tey wax ne ayut ni ki kawar gee ñu wax ak yooyu la gën mooy nga raxas ko njëkk wala wonta sama defu jariñu bari ci ha ci ay dungam wala bi qarni ha du ciage na ci bejenam wa adlafiha ak ay njaaxoom njaaxoom mooy weex rek wa an yabiha ak ay bañam lépp yoo ne boobu dund boo ko dundee métti nag bu ko see medd te medd may sobe jeex na doo ko mën a jariñoo mel dunga yi saxoon ci yaram wa wala béjjën ba wala weeya wala bañ ya wala yàpp wa mbaa dara wala yax ya ñoo ci yem lépp sobe lay loon des ko lekk it bu ko defee si wéef na al intifaaxu jëriñu bi an yaabil fii li ci bañ a ñay loolu da ko wax rek waaye leer na leer na ne lay àtte ba dëgg-dëgg wax ji gën a wóor mooy bu fekkee ñay dafa medd day araam rek ndax moom mooy yëpp yam da nga dara ji sotti ko rek bu ko see medd ay dama yëpp day araam bu dee ñaw yoo xam ne bu dee ñaw yoo xam ne ñu ngi ko jàpp rendi ko waaw su boobaa nag kon moom mënees naa jëriñoo bañ bañ ya waaw yooyu soo nañ ko ca gannaaw boo delluwaatee ñu bëgg xam ne foofu rek mooy bu xasee medd moom bañee sobi la bari ko njëriñ tax ñu mën ko jëriñoo wa kullu shay'in mépp mbir minal xinsiir ci mbaam xoo xaraamun aji xaraam la xinsiir nag moom léppam dañ na ko aaye xanaa rek waxat orchestre yaramaleef na fa intifaax ci jëriñu bi shahari ci kawaram kawaram nag mënees na ko xuuf moom mbaam xoox boo ko soxlaa jëriñoo ngaa xuuf kawar nga moom jëriñoo loolu def nañ ci jàppandal wa xarama araamal na allahu yàlla subhanahu soril naa ko lépp léeru ci moom shobal xamri naan sàngara qaliliha aji néewam wa katiriha ak aji bareem nee na lépp loo xam ne sàngara la day araam naan ko naan ci lu néew ak ñaan ci lu bari lépp ay bu rek sañ nga caa naan ba bañ a màndi mbaa dara déedéet defal ne pusa sax sañoo ko caa mos wa sharabul arabi naanuk arab yi yow ma isan ci bis boobee fadluxu tamri xonjal tàndar ma la woon nee na dañuy araamal sàngara boo la arab yi doon naan mooy tàndama gi ñu xooj jàmbaan ko bàyyi ko bu forox xam ne léegi bu ko naanee maan ni loolu la woon wa bayyana te bëdaloon ar rasul yonent bi alayhi salaam ne anna kulla ma naka lépp loo xam ne askara màndal na kafoofu aji bare minal ashribati ci naan yi fa xaliluhu topp aji néewam xaraamun aji araam la kon yonent bi leeral na lépp luy màndal rek araam na loolu ca néew wala ca bari te kullu ma lépp loo xam ne xaamara nuur na alxaq la xel ma fa askaraho te màndal ko rek min kulli sharabin ci gépp naan fa moom moom xamru sàngara la lépp loo xam ne ko naan mu daal di muur sam xel nga daal di mbégte mbégte moo di sibiree kooku sàngara la xees na ko moytu waxaala waxoon na nag ar rasul yonent bi alayhi salaam ne inna lëfi naka yàlla mi nga xam ne xarama araamal na surbaxa ak naanam ba tey xarama xaraamal na bayxa ak jaayam yàlla mi araamal ku naan sàngara ma araamal ku jaay araam na jaay ko wana xeeti tere woon na ma yonent bi xanil xali tayni walis yaarin jaxase minal asibati ci naan yi te wa dalika loolee ay yoxlataa mooy bu deefu leen jaxase xindal intiwaasi fa xonj ga xonj ga mooy xooj ga wa xindal shurbi ak fa naan ga yonent bi daan aaye boole yaari naan naan ko benn yoon ndax day bañ mu àgg ci dëgërëb màndal te nga defe ne mel na loolu àgg ci dëgërëb màndal kon nag jaxase yooyu yaar la mën naa am boo leen di xonj nga leen boole mel ni nga wut tàndarma ak reseñ ñoom ñëpp boole leen jëmb daal di xooj teg fee loolu daana ko aaye ndax day bañ mu àgg ci dëgërëb màndal xamoo ko daal di koy naan màndal la xam nga ne moom bu fekkee àggu ci dëgërëb màndal maanaam fekkee du màndal bu waaso bu neex rek la dagan na nga naan waaye nag waagee ci màndal moom day araam di sàngara bi ci des nag mooy dangaa xooj feelee xooj feelee ba ngay naan na nga bëri leen jaxasi mooy waxin de sur bi lu ci nekk mën naa am waaye lu ci mën doon rek daana ko aaye ndax bañ ma am ci dëgg rek màndal te yow nga defee ne agu ca waaye nag te tere woon na xanil intibaati wala xooj xooj xooj mooy xooj rek fi dubaay ci tax wala mu zëfati ak ndab yi ñu diw ko doroom xam nga lu ab tax buntu ba day tuuti bu féetee kaw boobu ci ngelaw li ko dugg kooku nag xam nga boo njàmbaane def ci day dem ba àgg dëgg rek màndal loolu suuf boo demee wala moo tax daana aaye ku njàmbaan ci ab tax wala ndab loo xam ne ko duugatoo xam nga doon dafa tal dañ ko dugal ci ndab li ngelaw li ko yàlla fenn boo njàmbaane def ci denc nag maanaam nga wax àgg xaat ci dëgg rek màndal te doo ko yëg wala naa tere woon na yonent bi alayhi salaam tereg si rek xan ak li kulli fi naabin walis lekk lépp lu borom bu sell dina sibaax ci nañ nant yi bu dee fiq maalik moom yonente bi ay woon na ku lekk lu amul sell ah lépp luy fàdd waaye ñoom ayu sib lañ ko jàppee bu dee bukki bu dee kund bu dee till bu dee ñey bu dee tene bu dee mufuri nga xam lépp ba ci siiru sax musum siiru moomu dañuy wax rek nga sib la golo nag golo moom am na ñaari wax wax bee dafa wax sib wax bee wax araam xajit noonu xaj moom dañ ko sib ba nga xam dañ ko ñaawlu daal nii ba nga xamee ne ñu bari wax nañ ne sañes koo lekk ak araam daal ñu bari wax nañ ko janax it noonu sib bu dee janax joo xam ne lekk sobe ñu sib ko bu dee janax joo xam ne janax yi nekk ci toolu gerte yooyu nga xam ne janax yi wax lay doon toolu lekk sobe dara nekk ci waxan ak li li moomin xumur yi ak walis lekk yàpp mbaam yi al ahliyat yi ko du kër maanaam mbaam yi nga xam ne ñooy nekk ci kër gi ba min nit ñi mooy mbaal mi nga mel rek ci kër gi yooyu araam na ñu ñu lekk leen te kat seen borom yi nga xam ne nga ci àll ba doon jaay àll nga xam ne nga leen di rëbb doo leen jàpp moom dagan nañu nañ ko nañ ko wax léegi te yenn yi rek la yi daal mi nit ñi jóge kër rek araam yee nekk ci àll ba dagan wa daxala bugg na ma daxala xaa seen tàbbikaay lu xoo mun xayli yàppi fas yi wala bu xaali ak baxla yi ba tey nee na fas ak baxla bu dañ fiq maalik fas day aay dis ko lekk ñeen ñi sax moom nangu nañ ko ko lekk te mel na ma sax ci sunna ni lekkoon nañ ko waaye yaa fiq maali moom fasat baxlaat mbaami kër yi la yemale moom kenn leen lekk li xawlillaahi ngir wax yàlla ji tabaraka wa taala tabaraka barkeel na wa taala te mu kawe ne li tërka boo xaa ngir ngeen war a leen waaye si yéen itam ak ngir muy waajtaay ne ba suñ borom ne wal xayla wal bihaala wal xamira da caa teg li tërka boo xaa waaye si yéen itam ñu ngi war ko ak waaje ko mel ni kon doo ngi lekk loolu moo tax Maalik wax loolu wala dakaati di rendi di am njëriñ fii sa in ci dara min xaa ci yooyu ndax bu la nee nangam dus ko lekk moom ni ki mbaam yi nga wax nii ak fas yi baax lañ loo ci rendi tam du wax rendi ko dagal na ci dara rendi ko du ko du ko taa baax illaa fi humuri dara ci mbaam ya al waxsiyat yi ko du njaay àll lu may mbaam yi nga xam ne dañoo nekk ci àll ba miinu ñu nit ñi xam ne ngay rëbb doo leen jàpp yooyu moom ni ngay rëbboo ji ci àll bi mën nga koo rëbboo ji mbaam yooyu boo leen jàppee lekk leen te kat ni nga ko waxee moom mbaam yi kër yooyu rek waaye nag mu ñu di ay jaayal ci àll ba mees na leen lekk wala baas ayut bi ak li si baaxi tayri ci lekk ndegmenti jaww ji maanaam mboolem mën ngaa wax ci lekk ndegmenti njanaaw yi maanaam mboolem li naaw ci jaww ji rek donte nañu fàdd mel ni tan wala liccin wala baaxaañ ñooye moom lu mu ci mën doon bu dee fàdd it ñu tey mën koo lekk moom te si buñu ko sax xanaa njurub njurub dama nu wax ne sib nañ koo lekk ndax li ci ëpp day lekk sobe rek moo tax ak lekk mu ci ëpp sobe lay doon wa kulli fii mixalabin ak lépp lu boroomam gëddukaay min xaa ci ñoom ñanaaw yooyu gëddukaay mooy woowu ñaw ñu ngi fi gëddukaay ci wolof rek waaye mooy woowu ñaw lépp lu ci xam ne am nga woowu ñaw bay fàdd itam du tee rek dagam janaaw la rek mënees na koo lekk ba ci tan moom sax waaye it mënees na koo lekk wa min al faraa'id bokk na ci farata yi birru waalidayni topp yaari waajur wa in kaana ak donte nekkoon nañu faasiqiina di ñaari kàccoor bu la neexee di ñaari saay-saay ak wa in kaana ak donte nekkoon nañu musrikiina di ñaari yéefar fal yaqul nay wax lahumaa ñeel leen ñoom ñaar xawlan wax layinan ji aju nooy wal yuhaashirhumaa te na àndanteeg ñoom ñaar bi maaruuf ci njëkk wala yutihumaa te bu mu leen topp fii maasiyatin ci mooy kama qaala ni ko waxi allahu yàlla subhaanahu wa taala day junj la yàlla waxoon ne wa in jaahadaaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma dafa wax ne bokk na ci farata yi mooy sa ñaari waajur nga déggal leen nangul leen topp leen te yàlla tax donte dañ di saay-saay ba donte dañ di yëfër sax ñu tee rek nga nga nga jox sàq ñoom ba mat dañu sax bu dee yëfër bi dem ci jaamukaay ba te bumbu mënu caa dem kon nga war ko caa yow yow doom waaye boo ko jox alal ju yóbbu ca église ba mbaa yooyu ci seen yooyu le su ko defee nag kenn ku ne waajur war naa waxanteeg moom wax ju nooy ju yaru àndanteeg moom ci lu baax lépp lu yàlla gërëm te moyt na waajur yóbbaale ko ci mooy ndax ak mooy moom lu yonente bi waxoon ne laa taaxata li wax loo ko fi maasiyatil xaaliq moo ci am agitis ba wax léegi ci wen jaaxadaaka ji mooy sa ndey sa waay bañ la bëggee sonal ci nga bo nga bokkaale yàlla loo xam ne yoo xam nga ne lii wala su ko bokkaale yàlla loolu bu leen di topp ndax loolu xam nga ne mooy la waxalal mu'min war na aji gëm an yastaxfira mu sa muy sàkku njëggal li abawayhi ñeel ñaari waajuram al mu'mineen yi aji gëm nee na kenn ku nekk daa war di sàkkul yaari waajuram yi nga xam ne gëmoon nañ yàlla moo xam ñu ngi dund moo xam faatu nañ rawaan ci mu faatoo ci raw nag da leen di sàkku njëggal te suñu borom ne waxul rabbi waxul rabbi irhamhuma kama rabbayaani saxiran di wala lay junjoo waxaale war na ko muwaalaatu mu'minina méngoonte jullit ñi wan nasihatu ak laabiri lahum ñeel leen nee na bu la yàlla boole jullit ñi da ngay sant jàppante ñoom lu nekk nga nekk ca di leen laabire lépp loo xam ne xam nga ne seen njariñ la nga leen ko xamal di leen ci di ci ci dimbalante ñoom loo xam ne day aay ci ñoom mbaa lor la nga leen koy fegal leen ko xamal ndax ñu mën caa dugg wala yabluxu du jot ahadun kenn xaqiqatal iman dëgg-dëgg yi gëm xataa yuxiba mbate mu soppe li naf li axiihi ñeel mbokkam li axiihi ñeel mbokkam al muminu muy aji gëm maa yuxibu la mu sopp li nafsi yi ñeel boppam nee na balaa kenn am gëm nga dëgg-dëgg gëm nga matamat day day àgg ci ngir yàlla tax lu mu bëggal boppam bëggal ko mbokkum julitam kadaalika naka noonu réew yàlla la net leef ko an rasulillahi jële ci yonente bi yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam waxal yi war na ci mu kàllaf mi ay yasila muy jokk rahimahu ak bokkam nee na jokk bokk kat ci faratay la bokk te bu ëllëgee des na ko laaj wa min xaq yi mu'mini bokk na ci àq aji gëm xalal mu'mini war aji gëm ay yusallima mu nuyu alayhi ci moom isa laqiyahu dem tase naag moom wa yaudahu te mu koy wóot te mu koy seeti maanaam isa marida dem tawat na wa yushammitahu te mu koy ndokkeel isa xatasa ndem tisli na wa yashhad te muy teeye janaasatahu ak tàddam isa maata ndem faatu na wa yaxfadahu te mu koy wattu isa xaaba ndem fàddu na fi sirri ci nëbb wala xalaa niyati ak ci feeñ nee na àq yi jullit bu ne amel na ko mbokk mbiritam mooy su taseeg moom nuyu ko muy benn su tawatee mu dem seeti ko ñaay nag werante bi waxan na ne ku seeti ku tawat daal di wax juróom wax daal di wax ñooy yonte bi daa wax ne maa min muslimin yaamoodu musliman fa yaqulu sab'a marratin as'alullah alazima rabbal arshil azimi an yashfiyaka illa shifaahu llahu illa an yakuna xadara ajalu hadis ba nee na ab julit bu seetee mbokkum julitam wax li juróom-ñaari yoon mooy as'alullah alazima rabbal arshil azimi an yashfiyaka dañ su ko waxee juróom-ñaari yoon faw yàlla saafara kooka loolu nag daa fekk ab àppam mat maanaam ku àppam mat moom amul lay faj kon bokk na ci àq yi ab di amee waram mu di ko seeti bu tawatee bu ci topp mooy bu dislee mu ndokkeel ko daañu la wax nañu ndokkeele ku disli bokk na ci bu faatoo mu teewee janaasa ga mu teewee jullee ga yóbbu ga bu fekkee ne dafa génn nekku fi mu sàmm ko biir ak bitti xanaa bañ a wax ci moom dara ci dara moom dara ci moom lu aay bañ ko lor ci teewaayu nit ñi di duj ab deram bañ ko wóotu ci këram mbaa alalam ci dara loo xam ne ëpp naa def ci sa mbokk ñu liggéey yépp na ko moytu wala yaxjuru te du tong axaahu mbokkam mu fawqa salaasi yaalin lu kawe ñetti guddi daa wax ne nit moom nit rek la yàlla it xam na moom ne nit nit rek la ko defee mën ngaa seq sa mbokkum julit nag ba tax nga jàmb ko lu mel ni benn fan mbaa ñaar mbaa ñett waaye bu dee fi àdduna dong moom mu weesu ñett bu fekkee la nga koy jàmboo diggante borom la nag li ki day xëtt yoon li ki dem julli nga ni nga mbaa yooyu loolu daal moom diggante boromam la loolu moom jàmb ga mën naa yàgg mën naa mu weer mbaa mopp ko ndax yàllaa tax wasalaamu nuyoo ba waxru jëfoo dana ko génne minal xijiraani ca tong ga maanaam kat bu la nee wér laa weesu ñetti fan bu amee ñetti fan kon na nga jeexal jàmm gi ndegam yi fi àdduna dong la nga koy jàmboo ak sa bakkan kon na nga ko daal di jeexal ci kaw nuyu ko nuyu ba rek mooy yàlla di jeexal jàmm gi wala yam tax lu yàlla la ñeel ko ay yatruka mu bàyyi kalaamahoo waxam ba xam ne salaam ci gannaaw nuyoo ba te boo ko nuyoo nga jàll wax teg ca ba mu xam ne la nga jàpp ne yow bàyyi nga ko jàppatoo dara ci loolu wal xiji daanu tong nga aljaay su gi aji dagan da ko wax gi aji dagan rek waaye mooy gañ joxe ndigal xiji daanu dul bidxati mooy tong borom bidaa koo xam daa topp bidaa boo xam ne bu araam la kooku des ko war a jàmb ndax mu deltu gannaaw bi siwaat ci sunna aw mu tajaahiri wala aji njëmmeeral bil kabaayiri ci bàkkaari mag yi koo xam ne day def bàkkaari mag yi ni ki naan sàngara wala njaaloo wala sàcc yooyu nga xam daal yoon da koy aaye mu di ko njëmmeeral kooku des na ko jàmm moom itam ndax mu tuub te fexe ba rafetu njulit nga xam ne nag laa yosilu du mën a àgg ilaa xuqubatihi jëm ci mbugalam wala yaqdirutul atan xalaa mawxibatihi ci waaram aw laa yaqbaluha wala du nangu waar ga nee na su fekkee ne nag kooku def loolu da nga yow mënoo ci dara waaw te it neexuta waar ndax moom daa dëgërle ba nga xam ne faaliwul ak waar mbaa nangu nag koo waar nii sax boo ko waaroon lu la lu la def dara waaye am xelam moo gàtt goo xam ne aw la yaq aw la yaq ba waajee mooy nanguwul ak waaram ndax xelam mu gàtt mooy boo ko waaree itam moom xelam àgg na xelam ba àgg foofu waaye nee na kooku kon doo mën lu may jàmb ko rek ku mel nii nga xam ne mënoo ci dara ci sa loxo mënoo ci dara ci sa làmmiñ mënoo ci menn pexe jàmb rek ndax foo gis ñu fay def lu aay te boo nee doo ci mën dara doo sañ a dem boo fa nee daa fi war a jóg fi saas nekk mënoo ci dara wala ñu gëtu déet jëw nag fii xaasoo ni ci ñeneen ñaar fii fukk bi xaalihima ci tudd seen mbir nee na koo xam ne def lu aay nag di ko njëmeeral nga wax mbirum dong yem ca mooy lu aay loolee muy def te di ko njëmeeral bañ koo weesu loolu moom jëw la ni waaye bu jëw bu aay ba tey koo xam dafa topp biddaa boo xam ne biddaa bu ñaaw la ba tey wax loolee mu def ndax ñu mën ko moytu bañ ko caaroy loolee ba tey lu jëw bu aay wala fima du ci yéen ci loo xam ne yu shaawaru def na diisoo fii ci moom li ni kaay ngir takk soxna aw mu xaalatatin wala ngir jaxasoo wala yu ànduloo moom nee na sax bu fekkoon ne kenn dafa diisoo la laaj ci mbir ndax xam ko mu bëgg a takk mbaa ko mu bëgg a jaxasoo ci tukki mbaa bokk liggéey yooyu mu wax la loo ci xam ci diw kon mën nga ko wax la nga ci xam te du ko tax doon jëw bu araam ndax loolu labiré rek la jiwu laa yàq deru kooku da ngaa bëgg labiré kii rek wax ne loolu sax bu fekkee yow dong yaa ko xam sax day day war a moom nga wax ko ko bu fekkee xam nga kenn xam na ko nag nga xam ne boo ko itam xëy na kenn dina ko wax kon lu boobaa sopp rek lay doon waaye mën nga ko bañ a wax wala fii tajrihi shahidun bu jaay génn ci jam seere wanax yu am roog moom jam seere mooy wax ne kii doon seere bu leen sukkandikoo ci seereem ci àtt bi kooku ne nee na kon dañ koy wax da ngay dem ba ci àttekat benn wala moo sukkandikoo ci seere si diw mi nga xam ne ko ne ah man kat xam naa ci moom nangam mu dul seere loolu itam day nuru ak jëw waaye boobu jëw ayut ndax di ak dafa rek la ndax ma dul seere boo bàyyi ñu sukkandikoo ci seere mayam wa min makaarimil axlaaq yi bokk na ci tedd ngay jikko yi anta afu wa nga baal xam man walis ka nga xam ne zalama ka tooñ na la wa tontu ta ngay jox man ka nga xam ne xarama ka xañ na la wa tasiri ta ngay jokk man ka nga xam ne xataxa ka dog na la bokk na ci jikkoy rafet yi ku la tooñ nga baal ko ku la xañ teelaam nga jox ko ku la dog yow nga bañ koo dog te jokk ko lu jafe la waaye bokk na ci jikkoy tedd yi wa jimaahu aadaabil xayri mboolem teggiini yiw wa asimmatihi ak ay nosam te tafarraxu danañu bàngaasoo xan arbaxati ahadis walis ñeenti hadis neena man nga ne mboolem lu baax mboolem yu baax yépp am na nos boo xam ne mën na leen nose boo ci jàppee rek yépp fekk si la te loolu mooy ñeenti addis yonte bi waxan daal maanaam boo ci jàppee te yu baax yépp fekk si la bu ci njëkk mooy xawlu nabi wax yonante bi alayhi salaam ne man kaana ku nekk yuminu di gëm billahi ci yàlla wala yomi ak bisu al axiru bi aji mujj fal yaqul nay wax xayran aw yu aw lees mut wala mu noppi benn baa ngoor weesoo nañ ko ci gannaaw mooy koo xam ne gëm nga ne yàlla am na te bis pénc dina ñëw mu taxawal la la fay sa jëf loo bëgg a wax na nga ko seet bu dee lu baax nga wax ko bu dee loo xam ne amul tuyaaba rek nga daal di noppi وقوله أبو عليه السلام حديث نار الميل وخن من حسن إسلام المرء بقنا جرفتك الإسلام نتكي تركه بايم غما لب لو خن لا يعنيه دوكو جاري بوتا ويسو نانكو بقنا شي li tax fa l'islam rafet daal lépp loo xam ne amal nga rek nga sori ko wax muy jëf muy yëngatu waxaw ba waxaw ba boo xam ne alayhi salaam lim la fi ñeel ka nga xam ne ixtasara gàttaloon na la ñeel ko fi wasiyati ci dénkaane ba neen kooku da ko waxoon ne ko yaa rasulallahi allim ni kalimatin antafihu biha wala tukfir alayya fa ansa da ko yonte bi xamal ma ay baat yoo xam ne naa ko mën a jëriñoo te bul ko baril nag bàyyi ko fàtte yonente bi ne ko laa tax dab bul mer baat boobu rek laa tax dab jooju rek ci la yem xam ne nit dana mer sax waaye da ko bëgg wax ne ko lu sabab mer na nga ko moytu boo boo meree itam yi nga xam ne moom ku mer def ko yow fexeel boobu boo meree bu ko def ndax xam nga nit mën naa mer def loo xam ne moom ba àdduna tukki da koy réccu te it mën naa mer sax def loo xam ne ko yóbbu sawara walxiyaadu billah taxum dénkaane boobu daa gàtt waaye bu yaatu la bom yoon la wax na wax yonante bi alayhi salaam ne al muminu ajibam ja yuxibu dana sopp li axihi ñeel bokkam al muminu may ajibam maa yuxibu la mu sopp li nafsihi ñeel boppam kooku tam yesoon nañ ko boobu nag mooy ñeenteel addis yi nga xam ne naa ku ko ci jàpp yu baax yépp fekk si la mooy lépp loo bëggal sa bopp bëggal ko sa mbokkum ji te yàlla tax boobu boo ko boole yett ya mooy ñeent yi waxoon wala yaxilu dagan la ka ñeel la am tata xamad ngay tey samaaxal baatili dégg ak caaxaan dégg ak neen ku liggéey léppam bu nekk neen rek mooy lépp loo war a déglu rek muy jëw muy rambaaj mboole mi nga xamoon ci gannaaw tamit sikk yu bàyyi ko ci làmmi rek yooyu yépp nee na des ko war a moytu wala ko tey ba noppi di ko déglu wala an tataladduta du caagéen nga bànneexu bi samaahi kalaami imraatin ci déglu waxi jigéen joo xam ne laa taxillu um dagan laka ñeel la jigéen joo xam ne dafa tolloon ci di wax naa jigéen joo xam ne liw la bu ne liw la rek mooy du sa soxna du sab taara waaye léegi moom li ñuy wax taara wala ab jabar muy jàmbu jigéen dafa amatul léegi kon mën ne rek du sa soxna daa wax ne kooku sunu laa déglu ay waxam déglu bànneexoo kon li muy tekki mooy dégg waxam boo xam ne julliwoo caa bànneexu kon dagan na bu kooka dee soxnaam itam wala bu doon jamonoy jébbéer amee muy ab jébbéeram ba tey sañ naa déglu ay waxam di ca bànneexu wàññiwul dara waaye nag kon jigéen joo xam ne jaamur la ci moom soluta déglu ay waxam di ca bànneexu doontu sax alquran lay wax wala leneen lay wax loo xam ne day nuru ak topp yàlla ndax jigéen sañ te yëkkati kàddoom loolu moo tax ñu déglu ko bu dee julli sax bu biral day yelu too xam ne itam noonu du jigéen araam na kon nag ñu jigéen moytu yëkkati baatam di ca tudd yàlla mbaa leneen ngir defe na rek dana mel ak tudd yàlla la du aay aakay du ko tee aay wala samaaw shay in du caa génn déglu dara minal malaahi ci foxukaay yi maanaam mboolem xeeti poyukaay yi nga xam ne moom nga xam ni dafa am ñoo xam dañoo maase ci araamal ko am na yenn yuñ ci settee ci bu fekkee ne xew takk soxna la ci islaam am na ci yoo xam des na ko ci settee dana ko wax ci kanam buñ ci kanam tuuti ci bunt bale ñooñu nag fi ñu sukkandikoo mooy addis ba wax ne kullu lahwin يلهو به المؤمن باطل إلا ملاحظة الرجل امرأته وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه وحنا ميت بومو كوغم يالا كي بو نين لا بام ديس فهمتك سخنام ak tàggat aw fasam ak fo ci sànni xala sànni fet dañu daal di dégg ne kon bu ne neen la neen moom mooy lu wuteeg dëgg te kon day daal nekk lu ñu aaye te lu ñu aaye aaye ak araamal lay doon waaye loolu ñëpp maasiwu ci ndax alxasaali day wax ne loolu mat naa seet ndax li mu ne mépp po ab julit di fooye neen la maes na caa dégg ne kon déglu ko amul njëriñ waaye ñàkk njëriñ nag taxul mu daal di nekk lu araam ndax gaam njëriñ taxul dana nekk daal di araam ku ñuy wax alfaakihi nii day wax ne laa aalamu fi kitaabillahi آية صريحة ولا في السنة حديثا صحيحا صريحا في تحريم الملاهي وإنما هي الظواهر وهمومات توهم الحرمة لا أدلة قطعية الفاكهاني يبالي سيون إن كنا وخنا من دال جدق دق القرآن با أليس مول دي سنوتي لير الله خم دي أرام الخيات فوق أيوه خمنا نك بسير لو تي وحي نيك دقيني وم من ناوانك aramal nii waaye tegtal wóor daal lu ko aramal moom nee na ci dëgg-dëgg mu yax bu la xëpp rek boo mën a jàpp noonu gisu ko ci mel na musée yi nga xam ne ñooy àttewoo lislaam itam nag fu mel ne arabie saoudite maanaam mel ne waa màkk yi ak lu mel ne waa iran teewut daañu di teg yenn yu demee noonu ba léegi mu cay teg sax di wax naa wala xëy naay ak way waaw way moom it ñenn ñi dañ koy maase ci ñenn dañ koy aayal waaye mel na ñëpp maase wu ci moom it daa am ñu koy teqalee ci ne bu fekkee ne wayu dañ koo defee ci jumtukaay yi ba noppi ka koy wax maanaam kàddu ga ñu mën caa bànneexu mu daal di aay bu loolu ñu sikku ñu daa am ñoo xam ne nga xam ne dañu wax ne wal muharramu samaahuhu maa kaana bi aalatin wa min man yultazu bi sawti wa illaa kaana makruhan maanaam lañu araamal ko déglu ci xeetu way mooy loo xam ne ko defee ci jumtukaay ba noppi itam ka koy wax ñu mën a bànneexu ci kàddoon waaye bu ci yooyu yaar dàqoo dañ koy sif rek yem ci bu mel ne xiyaadu te xiyaadu loolu siiw na day wax ne sifatul xinaayi allazi min xayri xilaafin maa kaana min ashhaari lxarab littaxyiiji ala fi'li lkaram wal mafaaxarati bishajaahati wal galaba wal muharramu maa kaana mushawiqan li fi'li lfawaaxishi ومشتملا على تكسر أو فعل شيء مما لا يحل كالتشبيب بأهل الجمال الحياد day wax ne lépp loolu yoo xam ne moom day soññ kooku ci def lu baax ak amul njàmbaar ci lu baax loola ñëpp maase na ci ne woowee dara si ku ca waaye way woo xam ne day yëngal kenn ba tax ko def lu bon mbaa lu tax góor gën a xeet ci jigéen wala jigéen gën a xeet ci góor yu demee noonu mbaa di di ci wax taarub koo xam ne wareesu te jekki di waxu taarabu noonu ni ki wax taarub jigéen yooyu yooyu la wax ne mooy araam moom daal bari na ay gëstu waaye daa mel ni daal réew yi nga xam ne ñooy attewoo fii mu nekk nii di jéem a góorgóorlu attewoo lislaam daal taxul teewul daal ñu teg xeeti way mën naam daal ñu segg nag waaye taxul daal ñu dàq ko ci seeni rajo ak seeni taskati xibaar bu wér a wala xiraatul qur'aan du caagéenu jàng alqur'aan bi luxooni ànd ak daajiya almurajjaxati yadiñ deltoo ka tarjihil xinaayi ni ki deltoo booy maanaam moom i taalif moom daa bokk ci ñu wax ne xeeti fawukaay yooyu sunu ci déglu benn benn maasale lu may yembale bu ko wax ci jullit ñi amee ab xeet tapp sëy lam la cay bëgg a setteel tegal la ci tam ne la mboolum xeet kenn xitam nga tax tax na ñu am luñ ci wàññ ci njàng ma niki amul wóor a bijji te bijjiwuñ ko mbaa am na lu tuuna bijji waaye neexantal nga tax na moom koy bijji kooku su boobaa day araam su fekkee ne nag amul foofu sib rek lay doon te sax daa mel ne maanaam sib gi amul solo ndax wér na ci addis ne lay sa mën na mën la metawal na bil quraan koo xam ne day jàngal quraan di ko neexantal kawantoo bokkoo ci man loolu la kon dafa tagg neexantal alquran kon da wax ji gën a war mooy neexantal ko te neexantal ko bañ a ëpp mu sàmmanteeg tajwid ba noppi neexantal ko te bañ a ëpp ayut yooyu wax la mu gën a war am na ñoo xam ne njàng mu war mu amul dara dara ci caaxaan rek bañ cee neexantal bañ a bañ a am dara ci caaxaan rek loolu moo gën a mën a jeexal ci seen xol moo leen gën a tàmm itam wala yu jàll na dee fi màggal kitaabullahi téeram yàlla bi alxasiisu bi aji tedd bu yutla te mooy bu dee fi ko jàng illaa bi sakinat mbara mu ànd ko dal wa waqaarin ak wóolu wa maag la nga xam ne moo xina dana wóolu ni am na laa xam naka yàlla yaram moo dana gërëm bi ci moom wa qarnahu te muy jegeñale min hu ci moom maha ihdaaril fahmi ànd ak teewal dégg ga mu daalaka ñeel loole alquran moom jàng ko dafa bari tuyaab loolu waaye ne li ci gën mooy nga jox ko àqam waaye boo koy jàng da ngay ànd ko mu dal ànd yaru ci anam ko xam ne yaakaar nga ne noonu ngay jàngee yàlla gërëm na ko xam nga ànd ko laab jublu fi la jublu ci sam xel jublu ci sa seetantal dama mën ngaa seetantal su fekkee mën naa seetantal nga joxe ba jàng meeru bu baax mooy ma xi bawul fax bi ànd ak teewal dégg nga lu tawal ka ñëw loole boo ci amee am boo ci mënee amul dégg moom na nga fexe ba teew sa dégg bu baax a baax wan nal fara indi bokk na ci farata yi al amru digle bil maaruf ci lu baax wan nax yu ak tere xanel man ka wolis lu bon xanaa kull man war képp koo xam ne bu si topp dàll lef na yebbuko loxoom fil ardi ci suuf wa xanaa kull man ak war képp koo xam ne tasiw dana àgg tasiw dana àgg yebbuko loxoom ilaa daalika jëm ci loolee fa in lam yaqdira ndem attanat fa bu lisaanihi kon ci làmmiñam fa in lam yaqdir ndem attanat fa bi qalbihi kon ci xolam nee na digle lu baax aaye lu bon moom bu fekkee yàlla may na la kàttan nga boole ci ne daal di nekk lu war boo ko deful rek daal di am bàkkaar mel ne bu fekkee dañ laa fal xam ne am nga doole yi aaye ak digle lu tam sotti yow loolu boo doon yër loolu daal di am bàkkaar loolu sañoo ko bu fekkee nag léegi amoo boobu sañ-sañ nag kon li des mooy nga wax ko ci sa làmmiñ ba ñëpp xam ne li aay na moytuloo ko ba xam ne ni nga wax ko ba ñëpp dégg ko xam ne li aay na waa sa jaan wàcc su fekkee mënoo ko wax ci sa làmmiñ it nag kon li des mooy xol bi xol bi nag mooy da nga yéene ne suñu borom day xam ne loolu moom lu aay la daa ci mënul dara di waaye su ma ko mënoon soppi ko kooku nag mooy bi ci gën a féete suuf nga xam ne moom mënta ñàkk saa yoo gisee loo xam ne aay na rek te mënoo ko dindi ci sa loxo mënoo ko dindi ci sa làmmiñ rek loolu moom faaw nga fas ko ci sa war nga war ko was ci sa xol ndax fasul ci sa xol moom jafewut moo tax kon bu dee koo xam ne mën naa dindi loolu moom faaw rek mu war koo dindi moo tax moom sala fi di sala bi di wax fii naa laakin na naxwa sultaani sifatu amrihi wa nahihi an yuharrifa المأمور أو المنهي بذلك فإن امتثل بمجرد التعريف بحنا وإن لم يمتثل هدده بالضرب فإن لم يمتثل ضربه بالفعل فإن لم يمتثل أشهر له السلاح إن وجب قتله ولا ينتقل عن مرتبة إلا عند عدم إفادة ما قولها وأما غير نحو السلطان فإنما يأمر وينهى بالقول الأرفق فالأرفق maanaam bu dee ku mel ne ku ñu fal nga xam ne am na kàttan mu dañ mu dañ kooku moom la war a njëkk a def mooy xam ne lii aay na bu dee lu ñuy aayam mbaa digle ko bu dee lu ñu war a digle su fekkee kooku dal ne topp loola alhamdulilah bu fekkee ne kooku bañ na koo topp nag da koy njëkk a tëkku ci door ko su fekkee ne deltul gannaaw mu door ko su fekkee ne door ba jëriñu ci dara mu seet bu fekkee luñ ko war a wayee la sooy ba mu dal di génne gànnaay njëkk ko xupp ba xam bu fekkee ne nag léegi taxul mu deltu gannaaw nag bu mënta ñàkk nag ñu def lu jaar noonu la koy tegalee njëkkilee tekkilee tekkilee ko xam ne yow nekkoo ku falu nag la la war rek mooy digle bi doo sa làmmiñ te say boo def ndànk-ndànk ndax ñu bari kat téel leen ndànk-ndànk lañ gën a mën a am njëriñ ci ñoom teewul jékki-jékki di xat xat xat xat xat rek noonu ëpp naa def su fekkee nag léegi wax gi sa làmmiñ sax mënoo ko nag waaw su boobaa kon nag li des moom mooy xol bi xol bi moom ngay jàpp ne rek law kuntu aqdiru ala dalika bi wadi aw lisaani la faaltu dangay wax ci sama xel ni man lii lii su ma ko mënoon ma ko mënoon dindi ci sa làmmeñ mbaa ci sa loxo danaa ko def su ko defee nag loolu na nga ko daal di bañ fi saa sa ba noppi daal di jéem a tàggoog ka nga xam ne moo koy def te mënoo ci dara ويحنا ويبخب ذلك مع ترك مخالطة المتلبس بالمنكر إن استطاع وإن انتقل إلى المداراة nga bañ a fàtte itam sarte yi sarte ci digle ak aaya ndax wax na la ko ci lu mel al jawhar ne aajo woon nga xàmmee lu baax ak lu bon boo ko xàmmee bu jéem a digle ak aaya te it mu doon loo xam ne lu bon la waaye soo ko aayee mu far def mu indi lu ko yees fara waaw ba ca toppoon nag moom mooy nga am kàttanut na dañ mu dañ kooku moom wax na la ne la boo ko dindirloo rek mi ngi bokk ci bakkaari ma ngi loolu ñu ko tegalee yett yoon loolu ñu ko addis ba tegalee mooy addis boo wax ne man raa min kum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati wa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu iman wa fardun faratala ala kulli mu'minin war jëpp aji gëm ay yurida mu namm bi kulli xawlin ci jëpp wax wa amalin ak jëf nel bëri ci topp wajhallahi jëm yàlla alkarimi yi aji tedd ومن أراد كنا من ذلك جلال غير الله كنا يالا لم يقبل دي فنانكو عمله وجفن دا واخنا نك بوغم يالا داي فexé ba lepp lu muy def ci xéetu jaamu yàlla yàlla doo mu tax xam da koy sellal yi wax gistal koy namm ci lu bokkut yàlla ba yàlla ak leneen bañ caa yàlla kese tax ndax yàlla balaa nangu jëfal yaar ba ñu tase mooy ñu defal ko nañ ko diglee ba nopp yàlla kese tax yow yaar moom bu ca tasee rek ñu nangu ko bu ca benn xëttee rek des ko nangu والرياء نجسل الشرك موي بوكالي غا الاصغر بو گنا ndaw بوكالي داي ñaar بوكالي gu mag moy boole yalla ak keneen moy ak kefir ci dess nak mom moy jëf jo xamne jëf yi ak top yalla la manam ak jamm yalla la jamm bi def ko te yalla kesse taxut lolu la yewé bokale gu ndaw wa tawbatu tawb faridatun faradala min kulli dambin ci bepp bakar min xeyri israrin ci lu noro والإصرار نور نك المقام مودي صح على الذنب ci bakkar la واعتقاد الحوض ak fassa delu ilayhi jëm ci won neena tuub moom bu ko laf mu ne war na koy baril ndax ab jaam moom daanaka fu mu toll di yàgg su ko defee nag bu dee bàkkaar ya moo xam dëgg-dëgg moom da koy ràññeel te tuub ko tuub gi nag mooy ne la ko waxee woon mu rëcc ko te dogu ci fas ci yéene bañ koo defati ma ko wukk bu fekkee day bàkkaar yoo xam ne xamu ko it mu yéene waale ko tuubaale rek noonu ndax ne ko moom mënu ko ràññeel su fekkee nag saa yu defee bàkkaar daal dem rek ci noonu rëcc ko dogu ci bàyyi ko nag xamale boobu tuub moom sell na doon dana koy dal ay yooni yoon it du teewu saa yu defee noonu rek boobu bàkkaar set na kon bam naawoo na góorgóorlu rek yàlla mën na koo dimbali bam génn ci loolu lépp bu mu defee na def nga koy defe ko defaat rek day tax tuub du am njëriñ ah kay saa yu defee saris tuubi rek tuub boobu moom sell na te loolu jeex na lu mbàyyi la bon daal mooy sëgg ci rek ak fas ci yéene dellu kooku moom mandargam taxee la wa min at-tawbati bokk na ci tuub raddul mazalimi delu tooñaange ya wajtinaabul maxaarimi ak teet yu araam ya wan ni yot ak yéene an laa yaawuda ci mu bañ a dellu ne bokk na ci salti tuub yi kat bu dee yum siq ak doomi aadama moom nga xeet tooñaange da koy delloo bu dee alal waxal nañ ne bu borom dee teew julli ci àdduna da koy delloo bu fekkee ne borom teewut mu jox ko ñako wara doon fekkee ne ñako wara doon tam nekk ñu fi mu saraxel ko te yéene ko tiyaaba ja bu fekkee ne ak ak ab leer la na moom te kooku nekk fi tam mu jégalu ko ko fekkee ne kooku nekk fi nag moom nekkul lu mën a tawee ca ña ko war a doon bàyyi ndax ab der moom daa bokkul ci ñu doon su ko defee nag bu dee tuubi day daal di moytu lépp lu aay ndax xam nga ni maa ngi tuub ba noppi sax sëgg ci lu aay moom da nga la koy reetaan yàlla tuub daal sax dañ ci waxoon moo xam nga ko mooy day rëcc la weesu woon fekkee ma nga ci woon loo koy bàyyi fa saasa te aussi yéene bañ cee delloo ci mukk mukk rek wala sax far nay jéggalu rabbahu boromam wayal jooti muy yaakaar rahmatahu yërmandeem wala xaafu te muy ragal xadaabahu mbugalam wala te jàkkaru te muy fàttaliku ne amatahu xéewalam la dehi fa moom wa yashkuru te muy sant fadlahu ngëneelam alayhi ci moom bil amaali ci jëf ya bi faraayihi ci ay farataam wa turki ma ak bàyyi la nga xam ne yukrahu def na sib fi'luhu ak jëfam wa yataqarrabu te muy jëriñu ilayhi jëm ci yàlla bi maa ci la nga xam ne tee sare jàppandi na la koy ñeel ko min nawafil khayr ci nafila yow ne may baral ne baral ci lamiñam istighfar allahumma ighfir li astaghfirullah yow ne koy baral ci lamiñam ndax loolu kat lu baax baax la su ko defee nag bum naagu ne yaakaar yërmande yàlla tey ragal mbugalam ndax boole ragal yaakaar moom moo war ci jaam ndax ragal bu ëppee kooku day naagu yërmande te fekkee bu ba bu baaxut fekkee ne yaakaaram daa ëpp it day daal di bëri mooy ñëw topp yàlla ndax ne defe na rek yërmande yàlla moom bëri na loolu moo tax ñu bëgg ñu boole yooyu yaar ragal yaakaar te nga xaw a yemoonte su ko defee itam day fàttaliku baax li ko yàlla xéewal ndax bu lépp day fàttaliku xéewal dina tax mu sant dina tax mu rus dina tax mu tuub ko defee mu jéem a sant yàlla sant yàlla gi nag moom mooy rek li ko yàlla sant daal muy ay farata moom sax dañ koy siddoo nga it na koy moytu lépp lu yàlla bëgg rek donte waru ko it bu xeeti naafile yi na cay góorgóorlu bu baax xam nga hadis ba daa yoo xam ne sama jaam kat lépp lu mu def ngir bëgg maa jegeñ na xam ne laa farataal ci moom moo ci gën waaye nag bu farata yi jàllee nag tam bari naafile yi itam mooy loo bëgg te waru ko it day mujj sopp ko te su ma ko soppee dafay daal doon noppam bi nga xam ne ci lay déggee daal doon bëtam bi nga xam ne ci lay gisee daal doon loxoom bi nga xam ne ci lay nube daal di doon tànkam bi nga xam ne ci lay doxee su ma laajee mooy su ma ñaanee ma daal di koy may su sàkkoo ma musal ko ma daal di koy musal loolu moo tax bari naafile yi baax na lool ndax naafile yi day tax am ngërëm tax am loolu addi si wax wakkuluma lépp wax bu ñu naafile nag mooy lépp loo xam ne rek lu yàlla gërëm la te agul ci doon farata loolu rek loolu jubli ci naafile ci wax ci waxin woowu suñ ko waxee ci bërëb boobule wakkuluma lépp loo xam ne day yaxa sànkoon na ko min fara yi ci ay farataam fal yafal ku na ko def al aana léegi wayel xabtana xemem ilallahi jëm ci yàlla fii taqabulihi ci nangoom nga waye tuubu tamit tuub ilahi jëm ci yàlla min tabihi ci ak sànkam nee na boo dee tuub na ngay seet lépp loo xam ne xeetu farata la boo xam ne nga ko sàggane woon te dabaatal ba wéyit na nga ko daal di jéem a dabaatal ni ki bu dee barub julli boo amee woon yi demee noonu ko defee nga def ko defee na ko amul xemem ci yàlla nangu ko te te jéggalu itam sàng sàggane ba nga ko sàggane woon ba léegi wala yel ja te na wéeru ilallahi jëm ci yàlla fi maa ci la nga xam ne xasara jafin na xale ci moom min xiyaadi nafsihi ci waman bakkanam wa muhaawalati amrihi ak sàkku mbiram moo xilal mbirum muy aji woowu ni ànd xoo naka yàlla almaalik muy aji moom li salaahi su anihi ñeel yowug mbiram wa tawfiq yi akuk dëppaleem wa tasdidi yi akuk jubalam laa yu faariqu laa yu faariqu du tàggoog daalika loolu xalaama ànd ak la nga xam ne fii nekk na ci moom min xasanin ci aji rafet aw xabihin wala aji bon nee na kon lépp loo xam ne gis nga mu jafe la ndax sa bakkan moom moo naqari wëlbati du tee rek na nga ko bàyyi yàlla nga xam ne yàlla moom loolu lépp mën na ko yombal li ñu def lu ne moom moo ko mën a yombal su ko defee kon loo xam ci sa bopp ci lu baax ak loo xam ci sa bopp ci dëng ak mbanit bu mu tax nga naagu da ngay jéem kem sa kàttan yépp nag di ñaan yàlla boole ci ak xam ne rek yàlla mën na laa wëlbati ba li la jafe lépp yomb la xam nekk ci lu baax bu mu tax nga defee ne yow sa bopp bu mu tax nga wóolu sa bopp nekk ci lu bon tam bu mu tax nga naagu defee ne yàlla moom yërmaane mënu laa dab axaka yi boo nekkee ci lu baax del sant te ñaan yàlla yokk ko waaye lu bon la bu la gañee mel ni mel ne dafa laa gañee it mu tax nga naagu te góorgóorlu rek te yaakaar ne moom yàlla mën na laa wëlbati lépp lu bon lépp wëlbati ku baax wala yoy asatalu naagu moom rahmatillahi ci yërmaane yàlla moom naagu mukk yërmaane ndax lam ne laa yi asun min rawxillahi imul xawmu kaafiroona loolu ñu weddi yàlla rek ñoo war a naagu yërmaande yàlla wal fikratu xalaat fi amrillahi ci mbirum yàlla miftaahul xibaali ci mooy coow bi jaamu yàlla nee na di xalaat nag ci mbiru suñ borom bi iki lim sàkk diggante asamaan ak suuf lenn loo ci xalaat lu néew néew rek xamal ne mënees na caa doole ko waaru doole ci gëm ndax leen lu nekk rek wa fi kulli shay'in lahu aayatun tadullu ala annahu alwaaxidu mooy leen lu nekk rek boo ko xalaatee xam ne yàlla kenn la doole ci waaru koy jàng misaal yi sax am na buntu boo xam ne la ko beral ngir wàllu xalaat googule fa sain na nga sàkkoo dimandikoo bi zikril mawti ci tudd ci bi zikril mawti ci fàttali ci fàttaliku dee fa sain na nga sàkkoo dimandikoo bi zikril mawti ci fàttaliku dee wala fikrati ak xalaat fii maa ci la nga xam ne baax dafoo nekk ni ci gannaawam dana nag sa bakkan boo xawee gañe itam deel góorgóorlu ci fàttaliku dee dee ak la cay topp ndax ndegam dee dañoo wax ne moom moo gën a metti leen lu ne du ko jiitu te it yi ñëw ci gannaawam bu fekkee ne kooku lu ko nara amul ko rafet yi ñëw ci gannaawam ñooy gën a metti kon nee na di xalaat yooyu dana tax sa bakkan bi la gañee wa fi ni amati rabbik ak ci xéewalug sa borom xalee ko ci yow wa imhaalihi akum mugalam la ka ñeel la wa axdihi akum jàppam li xóorika ñeel ko ni yow bi zam bi ci bakkaaram nee na itam di xalaat li la yàlla xéewal ak bàyyi gi mu la bàyyi nga nettali fi am ak am ak man loolu mat naa sante ndax am na ñoo xam ne dañoo tooñ mu dal leen fi dal di nag loolu la feen toog ñëw ci saasa mbaa boog mooy leen yaatu ba mën a tuube yow nag yëngu ne am nga loo def loo war a def te yàlla nga la fi bàyyi nga ànd ak wér ànd ak jàmm ànd ak sa sago loolu nga war a sant dal di gaaw a tuub rek te xam ne kat loolu xamoo xam nga fi jógee kon nag gaaw loolu rek mu gën a wóor wa fi zalihi dambika ak ci adduna yi sa bakkaar wa xaqibati amrika ak mujj sa mbir wa mubaadarati ma ak njëkkanteeg la nga xam ne xasa ay yekkoo na xëy na loo mu nekk xad iqtaraba di jege man ajalika te mooy sa bàpp neen del xalaat li nga def ci bakkaar ba weesu ko te xamoo jégal la koom déet loolu mat nay xalaat di xalaat ak mat ndax xam nga ne moom bu yàlla dogal mën a jubóo ba tey maslaa mooy yàlla yaa ngi ci lu baax it ak mat moom ni ko warante bi waxee daa neexut a xam ndax ko yàlla mar ci moom texe moom bu njël benn woon ak ñàkk jiwit bu ca mujjee bu dee bu ca mujjee it ak jëf rek lay mujjee waaye ki yàlla mar ci moom texe di it bu njël benn woon ak jiwit bu dee bu ca mujjee foofu mu soppi ko jëm ci woon ka ca des loolu moo tax dama dara seen njot rek góorgóorlu rek te bañ a naagu daal defe ne dara sotti na rawantal nag bu ko wóoree ne moom dafa mel lu aay kooku moom moo war a gën a tiit tey góorgóorlu te itam la di jëkkanteeg li nga xam ne moom la muy sa kanam te xamoo kan la da ngay fa njort ne ne des na lu bari rek waaye wóor la xamoo nu mu toll loolu nag war ngaa njëkkanteeg moom bu baax ci def lu baax ndax xamoo te mooy sabab te xam nga kan lay ñëw te xam nga ne faaw moom mu ñëw te bis bu nekk day gën di jege si